Mikrobi mu, mio mudoga kamu disimpan simpang mekar di sungai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh e, jadi dia singkat e, jenau sampai yang dulu cian hmm, ini sampai sang ini sampai sanggu sanggu ini ziar nyep di nyep Eh, di ci nuyoo yi ak kàddu yi Serigne si sëñ Muntaxa Bachir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom ñu jàllale ko ci benn bépp kilifa aada mhm. ak kilifa fu ñu ne ci àdduna bi eh, di nuyu mbokk jullit yi di nuyu mbokk taalibe mhm. mbokk chrétien yi nga ni ñu ngi leen di ndokkeel ci seen weer wi ñu ne ñoom it Euh, di la ziar bu baax suñ pap euh, di nuyu bu baax suñu góoruñ ci rajo bi suñ Mahamadan sëñ Ibrahima bi ci seeni loxo di nuyu suñu technicien it sëñ Modou Mbaye Thiam euh, fàttewuñu it suñu jëwriñ suñu xarit suñu doomu ndey Cheikh Mbacke Géwul Xaadimu Rasul El Hadj moom fu mu ne rek nit ñuy topp dëgg yàlla di topp liggéey bi moom it nu nekk ci waar wale euh, di liggéey nekk ci liggéey bi moom it kon ñu ngi koy siyaar di ko wax ne ko namm nañu ko euh, ñu ngi koy xaaraat rek bis bu dellusee rek incha allah mu dellu siwaat ci rajo bi ak ñun ànd ak liggéey bi kon suñ pap ma delloo kàddu gi rek euh, ñu dugg ci thème actualité ci kàttanu yàlla jërëjëf suñ Pape Mokhtar jërëjëf mbokki auditeurs yi di leen fàttali rek ni yéen ngi déglu seen émission diaspora fii ci rajo xasida online euh, ñu ñuy seetaan nag ci Facebook ak ci euh, rajo xasida online ci plateforme bi Touba Monde bi euh, ak bépp bépp canal boo xam ni rek mbokk yi ñu ñu fay suivre Euh, di sant bu baax auditeurs ñoom ñi nga xam ni daanaka mm, waxtu wu jot bu dimanche jotee ci heure bi euh, daanaka dañ ñuy daanaka dañ ñuy euh, bàyyi xel bu baax di santit sunu mbokk yi nga xam ni dimanche bi passé ñun ak ñoom ñoo fi nekkoon doon bokk waxtaan wi ku ci mel ni sëñ Ablaye Diop kenn di ci jëwriñu rajo bi ak sëriñ Amet Njaay bu Tuba Milano ñu fas rek mel na ni euh, jamono yi moom génn temu euh, émergence bi nga xam ni moom la ñuy dund euh, lool ndax semaine bi Euh, li ñu dund ci euh, situation médiatique mënee suta dem ci beneen thème bu dul euh, temu situation bi nga xam ni moo xew ma bëggoon rek balaa may joxaat sëñ Pape Matar kàddu gi def xëy na situation bi nga xam ni moom mooy situation bi nga xam ni moo xew ci tey jii li nga xam ni moom la ñu jot ci ay numéro euh, toll ci li nga xam ni moo di euh, euh, situation bi nga xam ni moo am ci situation wu coronavirus bi ndax boo xoolee lii di Lombardia def naa ni fa la yëf yi gën a méttee N'y 552 cas Yufanek yohamni gismenko. Euh, Veneto sont Veneto, 189. Euh, Emilia Romagna, 213. Piemonte 11 cas. Euh, Liguria, 38. On a même vote qui est boletino di guerra la boo xam ni mëneesu koo bañ Liguria am trenta trentotto Marche eh, eh, am undici eh, Toscana dieci ca Sicil ñaar Lazio ñett Campania defe naa dix treize lañ fa def xaw ma dix neuf treize la waaw Euh, Poulia euh, Poulia mi ngi ci ñett euh, noonu lañ ko jàppee ba ci Bolzano benn Abruzzo benn Abruzzo ñaar Abruzzo ñaar defe naa Calabria benn yeneen région yi ñu tuddugul yëpp mu mel ni amagul benn cas fa am loolu nag mu ni suta bañ a cee taxaw ndax jamono ji ñu toll nekk na situation boo xam ni euh, ñun li ñuy dund xëy na moo gën a metti ndax dem nañ ba nga xam ni sax léegi euh, daanaka euh, modu yi nga xam ni dañuy bëgg sax dem Sénégal ne ni waa Sénégal lu ñëwoon siiw bañ leen a gis mu mel ni kon dafa am désinformation bu ci am boo xam ni désinformation bu yéeme la waaye it yamul ci loolu Euh, euh, dafa indaale maanaam li ñuy wax yi ne crise économique bu doy waar ndax xëy na dinañ ci dugg ci biir euh, effet yi mu nar a def conséquences yi mu nar a bàyyi conséquences yu yu diis la waaw loolu nag xam naa ni danañ ci gën a waxtaan ci biir waaye jamono ji li ñuy njëkk a def mooy dalal xelu waa Sénégal ndax euh, les fi jaaxle jaaxle jaaxle dégguñ fi benn sénégalais euh, euh, ñu ne la sénégalais yi maanaam donte mettre nañ en quarantaine seen dëkk am nañ jafe-jafe ñu ci profité di jaale suñu mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk Bellusco fële sa Monza Brianza dem suñu benn mbokk Serigne Saliou Diouf moo fa am infortunio su lavoro ndeysaan Euh, ci fonderia bi mu doon liggéey maa ngi koy bind ci sama euh, page Facebook ni émergence bi Italie di dund jamono ji euh, moo raw corona daanaka mën naa ni bollettino di guerra la ci incidente lavoro yi ndax boo xoolee bi at mi tàmbaleeg léegi janvier léegi cinquante deux personnes faatu nañ fi ci ci ci ci ci ay accident de travail Euh, lu ni mel faatoogu fii ci coronavirus donc jaadu na ñu def situation bi waxtaan waaye it euh, comportement bi nga xam ni moom la journaux yi ak euh, autorité politique yi def mel na ni am na lu ci ëpp bés Italie mi ngi sentir mi ngi sentir conséquences yi te jii boo xoolee dëkk yu mel ni France

suñ dëkk bi daanaka boo xoolee genn wàllu dëkk bi taxaw na fi mu ne nii tegaat nañu beneen euh, ordonnance boo xam ni li nekk ci Lazio Liguria ak Veneto yooyu yëpp tëjaat nañ école yi ba ba une semaine encore université yi nga xam ni loolu c'est toute une économie qui est à jeune xaw ma nag yéen seen boor yooyu tey jii parce que ñun yàlla defal nañu sutura ba léegi fi mu wax wax dëgg fa yàlla euh, ñi ngi fagaru di def euh, commencé créer ay zone de triage ak it di def information waaye ba léegi mënaguñ la wax ni la kaay nii la demee sëñ pap yéen ñi nga xam ni yéen a nekk ci boor yi gën a jege xew-xew bi ban situation ngeen dund ak situation bi foofu nu mu toll waaw jërëjëf sëñ pap Eh, li may njëkk a tàmbalee mooy jaale képp kuy sénégalais eh, diaspora bi yëpp di leen jaale Saliou Diouf ñu koy wax Doudou ñu koy jaale di naqarlu wax dëgg yàlla eh, accident de travail am bi am di ko di ko massaw njabootam wax ni nag accident de travail yi moom comme li nga wax noonu rek euh, déjà at bi bi mu tàmbalee ak léegi cinquante et quelques personnes noppaliku nañu euh, ci seenu liggéeyukaay ndax accident de travail deux mille dix neuf bi rek li ci faatu ci accident de travail daanaka mat nañu euh, junni maanaam ñett nit a ko tere àgg junni neuf cent quatre-vingt-dix-sept personnes ñoo xamante ni euh, boletino INAIL euh, bi loolu la génnee mu doon lim bu takku nag doon lim bu bari ndax nit warul warul ci liggéeyukaay ci euh, ci ci ñàkk jumtuwaay yi ak yu ni mel noonu accident de travail yooyu ñu loolu gis-gis boobu la am ndax bu fekkee mesure de prévention yëpp tax tegu na mesure de prévention yëpp a euh, am responsabilité pénale bi ak responsabilité civile bi di datore di lavoro bi euh, mettre nako en en euh à disposition ñu wowe dispositif euh de protection individuelle euh, wax dëgg yalla dana wàññi lu bari ci ci accident de travail euh ñi nga xamante ni nag wax dëgg yàlla moom mënuñu cee sori comme accident de travail moy comme Eh, percorso itinéré diggante sa ak fa ngay euh eh, fofu mom yalla suñu borom bu ñëwé rek ñëw na ak dogalam waaye ci biir kay bi mom yenn accident yi vraiment dañ koy nakarlu te gis nañ ni eh, lim bi bari na trop bari na lool nga ni quelque wèr ci ginnaaw rek ñu ngi wax ay indien fii Piacenza sa yo xamanteni ci ci ci vasque bi la ci la ñu dugg ñet ñep euh accidenté ci bu duudu bi nak Euh, man damay wax ni na ci bu ni four la information d'une manière tendancieuse parce que bo waxé four rek da nga yaangi et quelques degrés wala 600 et quelques degrés donc si ñé rek daanu ci te gisuñu exactement euh, lan rapport bi relation bi répertoire bi lan Euh, am ñu ne fuur bi dafa fayoon am na ñu wax leneen donc xaar rek ba xam am ci ay ay information yu gën a développé wu yu gën a euh, am am am aspect de vérité bi euh, bu boobaa dinañ ci mën a gën a xóotal gën ci def ay ay information dëgg yàlla ñuy jaale ñu koy jaale ñëpp yoo xam ni nag comme li nga wax rek ci ci virus bi coronavirus bi Euh, boobu ba léegi wax dëgg yàlla euh, médecins yi ay jàmbaar lañu euh, vraiment noppaluwuñu tuur labo yi sax dafa bouleversé wu ba nga xamante ni seen heure yi ñu daan noppaliku pour dellu siwaat ci hôpital bi sax mataluñu heure yi ñuy noppaliku léegi simila ak saala dañ lay dañ lay woowaat nga dellu siwaat bañ na ko ba médecin bi nga xamante ni am na ci benn médecin boo xam ni dafa demoon ba jël pension daa obligé dellu siwaat pour jàpp ci liggéey bi pour wan la ne rek médecin yi ñoom seen biir am nañu benn forme de solidarité boo xamante ni parce que xam nañ ni c'est une émergence te émergence bi xamaguñu lu koy saafara donc il faut que ñu ñu augmenter seen dispositif sanitaire pour que mën a taxawu nit ñi te gis nañu cas yi tamit ñu ngi gën a di augmenter ndax virus bi amagul tànk ginnaaw kon dafay jaadu vraiment ñu yokk taxawaayu médecin yi yokk seen i seen seen seen seen gafakaay euh, dem nañ sax ba ne léegi nañu euh, renforcer sax euh, dispositif u sanita privata parce que structure privée yi war nañu sax impliqué wu ci ci liggéey bi loolu nga wax nag ci domaine économie bi lu am solo la parce que tam réew daf ci économie lay doxe réew bu amul économie mooy réew réew mu réew mu ndóol la euh, ndax dara doxu fa waaye gis nañ ni semaine bi ñu génn nii doonoon semaine bi gën a tar ci semaine yi suñu zone yi moom daanaka lu bari dañoo tëjoon amoon na yu bari yoo xamante ni dañoo réduiroon seen activité euh, Lombardia bi sax nag moom moo gën a tar ndax Lombardia bi moom wax dëgg yàlla euh, yenn baar yi dañoo tëjoon yenn musée yi dañoo tëjoon duomayu bi dañ koo tëjoon te yooyu ay activité économique la yoo xamante ni dafay dafay am solo lool ci pile italien bi parce que Lombardie euh, ci deux semaines yi nii rek mu perte presque 11 pour cent de son économie ça veut dire que virus bi am na ay effets collatéraux euh, te it Italie comme dafa denk dëkk boo xamante ni euh, dañu fonk liggéey Euh, loo leen waxal waxal waxal waxal loolu moom euh, mun nga leen ko bàyyil ndax dëkk bu fonk liggéey lañu bañ nañ ko ba seen premier article ci constitution euh, ci liggéey lay wax te ni dëkk bi ñu ngi ko fondé ci base liggéey kon bu ñu demee ba nga xamante ni am na ay société yoo xam ni ña ngay xalaat tëj am na ay société yoo xamante ni ña ngay xalaat bàyyi liggéeykat yi seen kër syndicat yi ñu ngi dox ay jéego pour xool ba xam liggéeykat yooyu naka lañ leen di utalee couverture économique lu mel ni cassa integrazione straordinaria euh, yenn diitaa yi am na ci ay diitaa yoo xam ni sax ñu ngi ñu ngi def spéculation ci loolu yenn diitaa yoo xam ni ci Cremona amuñu amuñu yenn bëriwut bëreetuñu client wala Chine la ñu amoon ay client ñu am problème production xamuñu ni ñuy gérer le personnel ñu ngi commencé di def ricorso à la cassa integrazione te euh, nekkuñu sax ci condition boobu vraiment mais ak coronavirus bi peut-être moo leen di permettre ñu ñu mën a ñu mën a doxee noonu mais man damay jox benn benn benn conseil sama mbokk sénégalais yi parce que moment bu crucial la boo xam ni vraiment su su fekkente ni sénégalais bi mi ngi nekk période malatia malatia bi gudd loolu ba nga dem bay bëgg egg ci période comporto bi te xamaguloo kañ ngay reprendre te situation bi permettre la peut-être nga dem reprendre il faut que aussi nga teel a signalé wu ñu xool naka lañ lay gérer sa sa moment boobu nga nekk situation boobu nga nekk état boobu nga nekk parce que période comporto boo ko supéraare diitaa bi am na droit dàq la tranquillement te doo du la jox ndàmpaay doo doo mënoo ko top ci leen kooku per legge nu la joxe avant nag ngay egg ci période comporte bi war yow war nga xam depuis combien de temps yaa ngi nekk malatia mën nga laaj aussi sa sa prospetto euh, malatia euh, diitaa bi sama période mu toll comme mën nga ko dugg yow ci sa site site IMS ak sa pin personnel nga xool ko wala nga dem ci syndicat yi ñoom it ñu xoolal la ko donc mécanisme yi lay mën a permettre pour nga xool loolu yëpp am nga ko parce que ñàkkul ci euh, sénégalais yi nekk ci zone quarantaine yi ñàkkul am nañu ci nekkoon malatia xam nga mënuñoo liggéey parce que ñu ngi nekk en quarantaine ñàkkul it ñu ciy liggéey ci diitaa yoo xamante ni diitaa ba euh, am na ay jafe-jafe ndax man mii di wax ak yow am na sama benn société bu may suivre zone bu seetoo boo xamante ni am na fa ñett ñetti liggéeykat yoo xamante ni dañ leen lacharé à casa pour que ñu mën a euh, suivre euh, seen seen seen seen seen seen wér-gi-yaram daal parce que benn médecin bu ñu découvrir que ni moom il était positif c'est kenn ki médecin am la woon ñeneen ñaar ñi dañoo bokkoon ci pulmaan bi demoon ko Codogno xale yi demoon Codogno doon demoon demoon Bali donc ñooñu dañ leen mettre en quarantaine léegi nag ñooñu bu ñu nekkee malaria donc il faut que nga tegal leen mécanisme yoo xamante ni daf leen di jàppale am na tamit fabrique yoo xamante ni ñu ngi def spéculation que ni boo nekkee malaria da na nga ñëw nga indi avant ngay reprendre donte bu dee ñetti fan la sax na nga ñëw indi aussi certificat certificazione auto certificazione wala certificat bu wane nii Euh, yow dara dalu la et cetera bon idoneità moom lavorativa ah. médico compétente d'État dong moom moo la ko mën a jox sa médico boo ko ko laajee moom mënu la ko defal alors bu fekkente ni nag d'État bi laaj na la ko yow waxal d'État bi na la jëlal rapidement rendez-vous ak médecin wu d'État bi médecin bi d'État bi xool la soog lay mën a defal idoneità lavorativa ah. ba paré dita bi aussi na la wax naka lay copriré période yoy nga xamanteni yaangi tok di xaar rendez-vous bi parce que lolu stop forçato la parce que tam do dem di euh, ñu tok loola parce que ñom ñoo la toog loo du yow ya ko sax sa bop et puis nga bañ utiliser say permis wala say férié ndax ñun ku ne xam na ni dañuy tok ba benn moment ñu bëgg dem Sénégal bëgg magali wala bëgg gàmmu ji euh, bëgg def weer kon bu ñu nekkee ci férié yi dafay xaw a doy waar pour que ñu mën a am euh, yenn temps bu ñu mën a dem Sénégal ak yu ni mel gàllankoor bi nag bari na euh, rawatina ñun yi nga xam ni euh, dañuy jóge fii war a dem Sénégal comme niñ ko waxee dañuy obligé jël yenn vol yi nga xamante ni daanaka ay jamono <laughs> yenn vol yi sax dañoo jógoon ne dañ koy boycotté tey ji faaw ñu delluwaat ca vol yooyu malheureusement. Euh, yooyu ay gàllankoor la euh, ñaaxaat rek euh, ndax virus bi moom du ñu def lu dul continuer di ñaax ñaaxaat sunu sunu sunu mbokk yi ñaaxaat mbokk taalibe yi ñaaxaat ñëpp di wax daayire yi rek moment la boo xamante ni nañ ci profitoo ut yenn dispositif bul virus sax nañu ut yenn dispositif yoo xamante ni bu xew-xew amee nit ñi lu mel ni amu kiné yi nii ut machine yi nga xam ni da boo ci tegee sa loxo rek mu toqal euh, produit bi nga fomp sa loxo ndax ñun fu nu daje nuyoo bi day bari te ni ngay ñi ngay nuyu euh, xamoo lu ñu laal wala lu ñu ñàkku laal nañ ma jégal ci kàddu gi mais euh, xob bi ko bala ngaa lakkale ndax ñun ñëpp dañuy jiraare dañuy wër ñaan nañu yàlla mu bañ a laal kenn ci ñun waaye am lu dul lu dul lii sax am na yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen feebar yoo xamante ni euh, jaxasoo beek euh, lëkkaloo bi mën na koo indi waaw kon dañuy jël suñuy disposition rek te yooyu yëpp euh, précaution la rek waaw c'est des mesures précautionnelles yoo xamante ni ñun dañ cee war a nekk sax avant lii doon ñëw ndax ñun li ñuy daje yaakaar naa ni tubaab yi duñu ko daje ndax ñun chaque samedi ñoo ngi daje dimanche yi ñoo ngi ci daayira yi Euh, ñu ngi ci xew-xew yi ñu ngi ci lu nekk te ñun bu ñu dajee ñun li ñuy nuyoo sax xëy na amaana tubaab bi duñu ko nuyoo ndax ñun dañuy joxe loxo tubaab bi rarement la ñuy joxe loxo kon euh, yàlla mën nañoo sàmm yàlla mën nañoo musal ci euh, xew yi jamono bi ñaan yàlla rek di ñaan aussi sunu sunu kilifa yi ñu def ci ñaan bu baax a baax ndax ñi nekk zone quarantaine nag moom ñoom wax dëgg yàlla ñu ci bari man maa ngi jël sama téléphone di leen woo sànq moo ci mujj safurlaa démb moo ci mujj ci laa mujj euh, woo euh, soxna Xadi Faal góora ndeysaan doon soxna su baax doon soxna soo xamante ni euh, bu ma yeboo ni kodooñu boobu moo fa njëkk a doon jigéen ndeysaan waaw moo fa njëkk a doon nekk jigéen doon jigéen bu waaw mag la du xale waaw mag la du xale mu ne ma pap ñun ñoo ngi ci jàmm waaw yàlla ñoo ngi ci jàmm amuñu benn problème Cheikh Sey Cheikh Sey tam woo na ma ndeysaan moom it dimanche bii passé ni ma ñoom it mm-hmm. en quarantaine la ñu nekk mais vraiment ñi ngi ci jàmm ak seen njaboot ah. waaw waaw euh, parce que ah. parce que boo xoolee situation bi daanaka Sénégal bokk nañ ci ñi ko gën a aggravé mm-hmm. tey dem nañ ba nga xam ni tey jii su ma la waxee ni la situation tey bi Euh, Turkish mhm. Airways bloqué na mhm. volom yëpp yi daan ñëw Italie British Airways bloqué na mhm. volom yi ndax lu ci bari dañu amatul sax client yu ñëw fii xam nga loolu mooy conséquence yi actuellement nii waxatuma sax actuellement mais albergatori yi gis nañ euh, ñi même ñi prénotaré woon juin ñëpp dis diir nañ à novanta per cento loolu euh, mooy procurato alarme bi ñu doon wax aussi indi mhm. parce que Italien aussi. Euh, côté politique bi. Euh, jot nañu def ay erreur ay politique wax fa mhm. erreur la ndax mhm. yi ñu euh, taxul mbir mi na am am image rek président Lombardie Fontana ak ma bureau loolu mhm. bu ko bu ko un étranger gisee dootul teg tànkam Italie loolu mhm. euh, mooy li ma doon wax keroog dimanche bi passé rek nii lu mën ci am nañ leen ci wéy xel waaye dafa am mhm. foo laal foo xam ni man dama ci bëgg a dellu si waat pap ndax euh, ñun ba léegi euh, donte wax nañu lu bari mais ñun waxaguñ maanaam dañu joxagul ay modd yoo xam ni Euh, moom la ñu mën a war a mën a arante ndax boo leen xoolee ñu ngi doon wax fan yi euh, daanaka mm, sénégalais yi ñun suñu mm-hmm. suñu concentration moo gën a metti concentration tubaab bi ndax ñun mm-hmm. suñu concentration nekkul concentration boo xam ni nit ñi dañuy toog ñun dañuy mm-hmm. jaxasoo dañuy jaxasoo suñu biir euh, di joxante loxo ñooy bokk raxasu ñun ñëpp habitude yooyu nga xam ni dañ ko war a bàyyi da ngay gis benn bool ci màggal yi dañuy teg benn rax su ñëpp ñëw soob seen loxo. Euh, euh, am na sax ñu commencé léegi di indi ay kuddu. Euh, waaye dafa am ay habitudes yoo xam ni. am na sax mm-hmm. léeg-léeg nit bu ñëwee suñu biir daf ñuy xaw a xeeb. te nag wax dëgg mm-hmm. fa yàlla dëkk bi ñu nekk. war nañu mun a jël benn culture ci dëkk bi. ndax te jii maa ngi siyaar bu baax ñoom soxna May Jóob ak ah, jóobee ni nekk ci biir ak ñoom Saer. ndax gis naa bari na ay jóobeen yu fi nekk ñoom Baye Matar ak gars yi ñoom ndeysaan ñëpp ñi ngi fi waaye eh, eh, léeg-léeg day aajo ñu wax ak ñoom ndax tey jii mm. euh, euh, euh, dafa bari suñu ay xew yoo xam ni bu ñu deful ni waa Sénégal di def rek yaakaar nañ ni can màggaluñu waroon na mën a defar tey jii ay ay ay ay ay ay maanaam ay xewal yoo xam ni ni ko waa dëkk bi di defee la nga xam ni hygiéniquement day gën a neex war nañu mën a tey jii euh, def ci màggal li li gars yi di bañ parce que defal ku nekk sa mm-hmm. plat nga yore sa kuddu fourchette du tax du def dara nga xam ni da ngay def xëy na nag euh, gars yi danañ ko xeeb ndax jóobee ni moom yaakaar nañ ni bu ñu laalu ndawal rek duñu duñu duñu kii mais maanaam ay ay ay ay mesures de prévention yoo xam ni euh, lii def ñu war a yegg sax pour ñu changer suñu ay doxalin ndax nekk mm-hmm. ci ci ci ci ci benn benn salle euh, waaye boo xoolee daanaka ci wàllu hygiène bi dañuy ne dañuy wasu xarak yàlla moo ñuy musal mais lu doy waar la tey jii hmm. euh, yoon dax nañu ba nga xam ni mënatuñu def semblant ndax hmm. ngir aar suñu bopp mënatuñu def semblant tey jii zone yi nga xam ni fa fa xew fa mbir mi xewee moom kenn waxatu ko ndax Lombardie fi ne nii ordonnance ya fa nekk bu ni su xalaat tey jii ni yaa ngi fay def ay xew waaye barab yi nga xam ni tey jii euh, euh, xew-xew bi ñëwgu fa euh, day hmm. aajo ñu wàcc ndax bari na sénégalais yoo xam ni seen seen liggéey jaay la ay pendolaare la ñuy def dañuy jël lu mel ni saxaar di dem ak a ñëw tey jii nga hmm. xam ni dañu jaxasoo ay nit ñoo xam ni xamuñu fu ñu jógee train yi nga xam ni maanaam ni nit ñi di jaxasoo ni ci nit ñi di concentré woo yéeme na mm. euh, maanaam mu nekk euh, euh, lieu de d'échange de bactéries mm-hmm. lu dul sax bactérie boobu te jii nga xam ni noonu nga ko waxee ci daayira yi mm. dafa jàddu ñu teg yenn yenn mesures yi nga xam ni tey jii xeetu xeetu ay désinfectant yoo xam ni nit ki bu duggee ci daayira bi comme daayira yi ñun dañoo baaxoo ku ñëw da ngay sujootal ñëpp jox ñëpp loxo bu fa cent yi mm-hmm. nekk def li mais au moins mm-hmm. ñu def ay ay ay ay ay mesures yoo xam ni wax dëgg yàlla nit ñi dinañ leen mën a aar ndax lu nit aar boppam aar boppam dañu war a def benn mesure boo xam ni day dalal xel nit ñi. Hmm. mesures yi dalal xel nag loolu bokk na ci lu mel ni. Hmm. Euh, euh, nga teg ay ay garde-fou yoo xam ni bu ko tubaab yi sax gisee dinañ ñu respecté xam ni ñun ñii kat ñi ngi contribuer ngir waajal waajal waajal waajal. cet ci dëkk bi ndax boo xoolee eh, eh, eh, Zaya la mu wax ba ci dem jeex ko ci Chinese yi defe naa ni bu ñu ñëwoon ci suñu donte bokkuñu ñu nag Chinese yi waaye it am na noo xam ni mën nañ ñu ko apostrophe kon nañu góor góorgóorluwaat ci ci ci ci ndaje yi ndax ndaje yi moom ren jii def naa sax ñun communauté sénégalaise bi gis naa sëñ Fallou Mbacké def ci benn vidéo bu am solo Brescia. Hmm. ajuma ji hmm. weesu. Euh, jamiya bi kenn def defe naa julli wuñu ajuma loolu nag euh, du du lu ñu war a mettitlu ndax diine am na lu ci wax tey jii diine dafa wax ni bu balaa amee ci dëkk ñun ñi fi nekk amatuñu droit génn ci dëkk bi ñi fi dëkkul tam amuñu droit dugg ci dëkk bi kon tey jii hmm. ñu ne ko waa dëkk bi ñoo bokk benn soxla waaye dafa am lu ñu war loo xam ni dañ ko war a def ngir waajal suñu bopp ndax te jii hmm. mënuñu par exemple ñu ne bi euh, xew bi am na fi ñuy woote ay hmm. ndaje di xalaat par exemple waa Milan di jël seen i car di ñëw waa waa Brescia jël seen car di ñëw waa Napoli jël seen car ñu daje foofu mais ñun ñun ci suñu bopp sax bu ñu aarum suñu bopp sax mun nañu nekk un vecteur boo xamni da fay tasaare bu fekke kenn bu ko fa amé mën nako ko jox ñëpp mardi da fay jaddu wa tayji besi besi besu diiné yi fi am allah kulliyaal mënuñu ko jeexal te hmm. benn buñ ci ñak du tax aduna tukki te it du tax ñu am euh, benen fam lañu wara gëné ndax sëñ bi alarba joxena ndigal ni nañu jang ay wacc ay kamin, tayji xam naa ni am na ñoo xam ni tey jii euh, ndigal loolu dana leen metti lool ñu bañ koo def waaye mënees na koo def ci yeneen yi moyen ndax technologie yaa ngi fi tey jii ñun daanaka weer wu dee wu nekk ñu jàng ñaari kaar yoo ni ci fort whatsapp bi la ñuy séddale jukki yi ku ci nekk mm-hmm. jël ah, waa Milan nga ca ah, waa kër Sëñ Abdou Hakim yi mm-hmm. waa ngi ci fu nekk nga fa xoolal dañuy toog kaamil bu tàmbalee waa ji koy ubbi ni waxtu jàng jot na ku ci nekk saa yoo jàngee sa jukki dugal ni wa sama sama sama jukki kon mu mu war a nekk loo xam ni warees naa mën a bañ a wàcc ndigal li dëppoog jamono ji fii li mu laaj ñu bañ a hmm. wàccoog tam euh, euh, euh, recommandation yi waa dëkk bi war a def hmm. waaye it léeg-léeg jiital suñu bëgg-bëgg ak taxaw ni dogu ni waaw suñ tubaay aar lépp wala yàllaay aar lépp it léeg-léeg hmm. daanaka Euh, war na war warees na ko mën a wattandiku ba mu ba mu bañ a doon ak gaañante suñu biir yaakaar naa ni daal tey jii loolu tey jii lu ñu bëgg a euh, wax la waaye damay ñaan euh, Modou mbay ñu ubbi lim bi vraiment damay ñaan tey jii bëggoon naa daal suñu jëwriñu daayira yi ku ci mën a dugg ak représentant association yi képp ku ci mën a dugg Euh, joxe sa xalaat ak joxe sa contribution ci taxawaay yi nga xam ni moom la communauté sénégalaise bi war a am ndax it foofu moom euh, wax dëgg fa yàlla xamaguma situation bi dinaa la ko laaj xëy na yow ndax yaa ma féete foofu kaw suñu autorité ndax gis naa vraiment yeneen autorité yi euh, lu mel ni autorité marocaine yi ñi ngi ubbi ay comité de crise yoo xam ni publiquement joxe ay numéro de téléphone pour seeni communauté pour laaj it zone Lombardie bi sunu autorité mm. diplomatique yi fan lañ ci taxaw ndax wax dëgg fa yàlla rajo bi laay dégg journal télévisé ku mel ni Horizon sans frontières daanaka moom mooy moom mooy sunu actuellement sunu sunu sunu sunu sunu consulat te daanaka booy wax booy xool li muy wax moom xëy na ci ay peut-être ay représentants la koy jëlee waaye wàllu ay décision yoo xam ni dafay boole wala day tënk sénégalais yi ci seen taxawaay dégg guma ko pap pap foofu fuñ ci tollu tam waa jërëjëf euh, bi ngay wax dama dama xaw a reetaan ndax bi ngay wax ni euh, ñu ñu war nañoo egg ci ci ci pasta sax di ko séddale ma ne même bu plateau pasta sax am na plateau yoo xamante ni triste la boo ci defee pasta def ci ndawal classe classe sayer gi duñu am lu leen naqari ndax pasta bi mën naa ànd ak ndawal geeg ak euh, benn fruta wala leneen ñu teg ko ci. waaw classe seer gi hmm? ah tubaab yi ñu dàq lekk fuuf nag. gaa yi gaa yi waxante dëgg rek seen bët day natt day fees. Eh, tubaab yi tubaab yi ñu dàq lekk fuuf te bu ñu demee triste lañu lañu jël. xam nga eh, maanaam mbir da nga koy innover. Eh, du ne da ngay soppi dara ci yoon wi. du ne da ngay soppi dara ci diine gi. mais da ngay da ngay aar. ak sàmm euh, wér gi yaram yi nit ñi ndax gis nga loolu ngay wax noonu zaaya wax ko ci euh, ci ci ci li chinois yi di lekk bu ñëwoon ci sunu waañ yi fekk ñuy xoos yéet beeg géej gi kon foofu toj kon foofu doon leneen kon euh, doonte sax nag ñun moom lekk ñu ñu jinax waaye tey nag Sénégal am na ñuy lekk kaña kaña yi àll bi am na ñu ko lekk Sénégal. ah eh <laughs> train yi ngay wax nii train yi laata virus bi train yi boo ci duggee na yàlla baal te jéggal ma ndax nit kenn du kenn nit du xeeb moroomu nitam waaye sunu mbokku ivoirien euh, vraiment ivoirien ñag yi laay maa ngi jéggulu ci kàddu gi ñag yi yeneen xeetu yi nekk Afrique boo ci duggee train yi seen xet rek lay xeeñ ñun dañuy voyager dañuy nekk ci train yi bis bu yàlla sàkk waaye boo ci duggee sa sa yaram day daw surtout rawatina trajito bii nga xamante ni diggante Milan ak Bologna bi yéeg ak wàcc bi ci ñàkk yi du ñu dagg billet mel melokaan woo xamante ni xet ga lay rey yow ci sa bop en tant que sénégalais do bëgg sax da ngay am kersa ak yaraange top ci wet donc yow boy dund lolu bactérie yoy nga wa ngay wax ni mi ngi jiraré ci bir train bi tay ji ñu am leneen lu ñew dalat ci suñu kaw encore yaakaar na ni nga taal sa auto sax mu mu metti lool nga taal ko jóge fi dawal ko ba bologna garé dugg jënti li ngay jënti gennat ñew ci sa sa xel ci lay gëna mëna dalé a ngay dugg ci train yi tay parce que train yi affluence bi mi am ci bi train yi euh dana fees fees go xamanteni ni kenn mënu la ko wax surtout diggante bi ndax fii digg daan ñëpp pendulaar yi lañu euh man semaine bi rek def naa benn vidéo euh, c'était pas pour tirer l'alarme mais quand même euh ñu euh, ñu bari damay dégg ñuy wax naan ah man de suma waa kër ñu may wo man de suma waakir ñu ngi may woo man mi personnellement it sama waakir it di ma woo ma ne nag il faudrait que au moins ma génn naa génn def vidéo pour bañ a alarmer mais quand même wax effectivement yëf yi ni mu demee ak par rapport ak euh, euh progression virus bi aussi ni muy tëddee wax aussi démonter un peu court circuit médiatique bi nga xamante ni l' observateur def na ko Sénégal def na ko parce que ñoom ñoo indi alarme boobu ak panique boobu ci suñu njaboot gi nekk Sénégal et j'ai vu que wax dëgg yàlla nit ñi partagé nañu ko apprécier nañu ko parce que euh, xam nga boo boo boo joxe la juste narration rek nit ñi vraiment dinañu dinañu xam et dina dinañu informer juste et réel vraiment euh, ñun nag suñu daje yi euh, xam nga dafa am loo xamante ni su manqué ci taalibe bi rek Euh, dafay euh, su su su nekkul ci taalibe bi rek dafa am luy manqué mooy sujjóot sujjóot moom euh, dafa bokk ci ñun ba tax na comme mënul ñàkk ci ñun te jamono bu xaw a tëradi la ñu nekk lii gën mooy précaution boobu rek pour appareil yi di ci laal produit bi di laal suñu ay loxo pour mën ñoo permettre au moins ñu ñuy fànku ndax am na loo xam ni Euh, mënul ñàkk ci ñun faaw ñu koy def faa ñuy sujjoot faa ñu joxe loxo mais quand euh, lu mu bon bon am loo xamante ni daal danañ koy mën a di laal suñu ay loxo ñuy rafetlu bu baax liggéey nga xamante ni euh, le président Boubacar Seye mi ngi koy def bu Horizon Sans Frontières vraiment ñoom boobu léegi ñu ngi gëstu ñu ngi. non da ngay wax da ngay wax <laughs> voilà. Euh, mi ngi intéressé wu ci problème mu immigré fu ñu mën ci dollu nag te daf koy wax ak objectivité. Mm-hmm. Mm-hmm. vraiment waxu ko pour euh, euh, gis na ni daal am na ci vraiment association mi ngi ci mi ngi ci liggéey daal. effectivement effectivement dëgg yàlla ñu ngi rafetlu seen liggéey di leen ñaanal ñoom it ndax keroog bañ koy invité ci rajo en bi. Euh, keroog maa ngi koy maa ngi koy déglu di ko seetaan mu mu doon nit ku nit ku am pastéef ci li muy def ah man nag euh, par rapport aux autorités li ma la mën a seedeel daal mooy y avait une réunion yu ñu programmé woon ñoom à partir du vingt huit euh, benn instant c'était des c'était des réunions yoo xamante ni sax ci Facebook l'a ko gis man à ma grande surprise ci Facebook bi la ko gis bon man bima joté réunion bi ambassadeur mom moo ñu ko ñun en tant que CADES bima ko joté aussi j'ai appelé woo naa Seydou laj ko né ko mais est-ce que cette réunion bi c'est maintenu par rapport à la situation Vous ne bon on verra on verra dal ak yu démé nonou mais fi au niveau du consulat man bërkaati dembla laa ni ils ont reporté la réunion man le vingt huit su ma juumul vingt huit euh, ci ngoon xaw ma le vingt sept la vingt sept ci ngoon laa déggante ak euh, benn camarade copain bu nekk fii euh, Fiorenzo la ci laa ko wax ne ko mais yéen réunion bi may dégg consulat réunion boobu mënul nekk c'est pas possible te man déggaguma ku wax ni reporté nañ ko mu ne ma non non nañ ko maa ngi lay yónnee affaire bi ci la ko copié waat ci Facebook xaw ma daal yónnee ma ko donc y a une absence d'information par rapport à nos autorités d'ailleurs même ça, le gars là euh, il paraît que consul nos consulat la ma wax dem na ci zone yooyu yóbbu na matériel aussi distribuer nako et puis euh, def nos déclaration aussi au niveau de la RFM ni la ma wax xaw ma ndax vérifié mais mais ma dog la ma dog la foofu mhm. euh, dama gis bu dee loolu am na mhm. euh, man jaaxal na ma ndax dama yaakaar ni suñu consul mhm. res personnalité la bu dox war na mën a dox autorité Lombardie parce que y la protection civile qui fait le monitoring ak gouvernement italien foofu gis naa fa tam benn euh, wax dëgg fa yàlla benn vidéo boo xam ni qui m'a fait mm-hmm. peur mm-hmm. Euh, mu di honorable député Mame Diarra ndeysaan mm-hmm. ci ak xërëb bu ñëw Italie xam naa ni wane ni ñëw na vraiment dem ci zone yooyu di def live man de bi ma ko gisee dama tiit dama tiit ci kaw vraiment du Euh, ndax dañu nekk ci situation boletino di guerre mhm. zone boo xam ni dañ ko mettre en quarantaine mhm. dugg fa di def live euh, mhm. wax dëgg fi yàlla le fait que mu ñëw rek man rassuré na ma vraiment wane ni mi ngi ñëw pour sincère parce que autorité la waaye dugg ci zone yooyu sans protection ah man de sama xel mayu ma ko te du yëfu nit ndax loolu wax dëgg fa yàlla euh, def na loo xam ni xëy na euh, bu laajoon ay ay ay ay ay conseil xëy na dina bari ñu ko ni bul ko def ndax man dama yaakaar ni jamono ji li ñu gën a soxla ay autorité yuy jaxasoog autorité italienne yi di rapporter les vraies informations nécessaires yi nga xam ni moom la communauté bi soxla moo tax sëñ Pape man foofu Euh, dinaa fa juyoogloog yow ndax man dama gëm ni l'autorité soxlawul def buzz man loolu laa gëm gis nga l'autorité même guerre ci àdduna bi buy am duñu ko régler ca fa ñuy guerre ca taabal ya lañ koy régler man dama gëm ni honorable député Mame Diarra Fam c'était pas utile ni nécessaire mu def loolu parce que man soxlawuma loolu. man Sénégal ñoo ñoo bokk li ñuy wax ba tey de. waaw man soxlawuma loolu quoi. parce que man dama man lu ma la wax dama ni. Mhm. tey jii nous avons besoin. Mhm. des informations yi nga xam ni. Mhm. mooy jóge ca kaw. wàcc ci biir communauté. ñu bañ a am fake news. tey jii information bu sunu consul di joxe. de manière officielle comme nous l'avons par exemple vous avez un jour, jour hmm. communiqué de presse association nous nous nous nous nous député hmm. comité de crise nous hmm. Lombardie parce que avons fait un briefing pas parce que Mhm. man man dama gëm ni tey jii waxuma ni defuñu ko de. Mhm. mais dama gëm ni loolu moo gën a utile. Mhm. ndax na taxaw wane ni maa ngi buntu Lodi. te ñu mettre Lodi en quarantaine du question nit ki yàlla mooy reyee d'accord mais dafa am euh, euh, euh, njiit précaution yu mu war a def xoolal tey jii Conte kenn gisu ko ci zone zone yooyu. parce que nag dafa am ñoom seen rôle bi ñu war jouer communauté sénégalaise bi actuellement man de mhm. personnellement mhm. à part ñi nga xam ni ñoom laa gis ñu liggéey di relayer les informations ku ci mel ni mhm. yow ku ci mel ni Baye Diouf ku ci mel ni Abdou ak peut-être yeneen président yi nga xam ni seeni dëkk ña nga fay joxe yenn information yi nga xam ni ak sëñ Ahmed Ndiaye dañ koy jëlee ci source yu wóor ñëw jox ko communauté sénégalaise bi man gisuguma suñu autorité préparé ben document bo xamni de manière hmm. officielle daf ko jox sénégalais yi fi ngeen wara taxaw hmm. lool nak euh, dañ ci am retard parce que tey jii hmm. communauté marocaine bi man maa ngi seen ay document yo xamni ni ko bind en arabe sen consulat bi nek Bologna actuellement il est tellement actif mi ngi préparer mi ngi ci biir comité de crise bi Euh, le consul chinois l'ambassadeur hmm. de la Chine ñoom ñëpp gis ngeen ni ñuy ni ñuy ni ñuy de joxee seen communicato stampa yi nekk ci hmm. liggéey bi bokk ak autorité italienne di dem ndax nag actuellement nii amatul maanaam ñëpp bokk bokk bokk ku ci nekk ci wàll boo ci war a dox hmm. ñun am na sunu sunu sunu population boo xam ni tey jii dëkk bi li muy wax ci tele bi xamuñu ci dara

tey jii honorable Mam Diara buñu soxla ñun ñëpp ku ci nekk sa numéro le consul l'ambassadeur xeyna mm-hmm. xëy na moom mooy mais machine bi mu fi fekk bu leen né mm-hmm. dama soxla gis ngeen bi mu soxlaa association yi dafa relayer le le mail bi nga xamni association yëpp la yegg kon mm-hmm. euh, euh, euh, euh yoon wi nga xamni fa la ñuy jaarale information yi mi ngi fi mais man dama diggagul ben information à part Euh, ay nfm yu jel ay reporter yu yu wak pou sityasyon men yon sou la yi otorite ki takawa ebi, mokham fi, mokham sanegal gizou koumoutilou dal kaseba non, efektivman paske man vreman mwen gise video pou joun sou di, men se kwa men li mwen lan paske yon an pa bezwen de set video la apre pou demm au niveau de, de l'Assemblée nationale pour dire que j'ai eu le courage dem c'est du sénégalais mais quel sénégalais quel sénégalais alors il faut il faut am tuuti parfois raison garder on sait pas parce que on a j'ai quelque chose pour soxna maam jaara euh, sama sama gaañ la xam nga mais nag mais nag su dara tegoo ci taabal ji dañuy xoolandi ci bët ba xam si donc man gis-gis boobu la am parce que loolu c'est pas son rôle c'est pas son rôle man fi ma ko xaar du Je man fi pas ko xaar que à ce que mu dem andak l'autorité diplomatique nous dem au niveau de la région Lombardie rencontrer la région Lombardie xam la situation des Sénégalais fan la quarantaine, fan la a en quarantaine ci yane condition la ñu nekk yan besoin primaire la ñu soxla parce que nag nit ki fu mu nek war nga di soxla la ngay lek la ngay nan ak ya, ndax kay ba ngay liggéey ci yan condition ñu ngi lay couvrir sa sa sa absence bi nangam ak nangam parce que tam bu boobaa yow di nga dem re ben bailleur wala ay bailleur parce que ce sénégalais là dafa bok ci ñi contribuer ci économie Sénégal ñi contribuer ci économie dekk bi fi tubab bi nak namu koy traiter rek Moi euh, sénégalais bi nangam ñun ñëpp xam nañu tubaab yi parfois ni ñuy traité l' africain surtout rawatina sénégalais xam ni du wax du kaas yaroom yóbbu na ko ak manduteem yóbbu na fa nga xamante ni danaan ah yii naa toog jàpp euh, euh, sàmm sama wér gi yaram kon jaadu man ci benn approfondissement par rapport ak ma wax ne ma autorité consulaire bi def ko nangam ak nangam bi ma ko am ñi ma ko laaj a ah, la ma tontu de ak li ñu ma wax ute na parce que dañu ma ne l'autorité consulaire dem na déposé na ay dispositif déposé na ay waaye ñama laaj man bi te ñu dëkk ko dooñu googu nee nañu ma gisuñu dégguñu donc moo am benn désinformation ne bu am ci diggante boobu ou bien dañu ko jël dispositif yooyu ñu dem séddale ko feneen ak feneen

je pense que ñeko ko gën moy ñé nek ñee <coughs> bu féké dang ko bëgg vous tas ci biir Italie koy tas par rapport ak yow zone de compétence nga yonne. au président wala nga au niveau de l'ambassade de du consulat nga jox leen sachet yi wala nga jox paquet yi wala nga jox il distribue ça au Sénégalais mm-hmm. parce que tolloon nañu moment boo xamante ni mascarine na pour nga gis ko ci dëkk bi problème la amu kii na boo ko jëndul ci ci ci Amazon yeeg yeeg am bagage yooyu doo ko doo ko teg bët dem nañu ba nañ ne nañ ne da ngay jël liitaru euh, ndox toqal ci tuuti tuuti tuuti euh, kande ji ne eau de javel kon bu ñu nee ba toll foofu je pense que euh, boo demee bay venir contre euh, population sénégalaise. bi de yakarna nga jënd ay ay ay bagages di ko yoni wool les présidents d'association parce que ñom ñoy sa canal par rapport à la communauté locale. mais ñom ñoy ñooy réseau bi amul lenn loy def bypass leen mënut a nekk. mënut a nek donc affaire bi amna na question de fond bu ci nek bobu ba légui man j'ai pas entendu. benn autorité man dégguma ko xaw ma nag te man ci maa ngi ci réseau yi maa ngi ci bagage yi maa ngi ci lu bay mais déggaguma déggaguma sama bët mayaguma réseau sociaux yi mayaguñu ma fu ma liiree wala fu ma déggee ñu ne ma ah autorités yi def nañu lii wala autor suñu autorités yi def nañu nii par rapport aux autres autorités comme ni ko waxee waa Maroc table de crise boobu ñu créé vraiment di jël ay précautions di nemmeeku seen i njaboot di xool ci lu ñu nekk ak ci lu ñu nekkul y a une condition lañu nekk parce que tay ñun amuñu vol direct bu ñuy jëlé fi di Sénégal on en a pas. actuellement on est bloqué ñu dem. ñun actuellement ni risque risque de courir. bo xolé ñetti mhm. euh, le ah. Sénégalais risque de payer très cher les billets pour entrer au Sénégal parce que bu Turkish Air tëjee Air France mhm. est Euh, dëkk yu bari tëj tey jii Royal Air Maroc peut-être moo fi des léegi nga gis ñu commencé spéculer ci billets yi pour les sénégalais yi jóge ah. Italie. wala Maroc sax léegi léegi Maroc ne moom dootul ñëw Italie. waaw ah, parce que nag am na vol indi man de jot naa message yoo xam ni carrément màggalu poroxaan bi am lu ñuy wax yéen waa Italie balaa ngeen di ñëw soo leen mënta toog dem leen ci docteur ngeen seet seen bopp ce qui veut dire que ni euh, toog leen.

léegi daal rajaxe presque fépp doog a dem te ba léegi mënuñu la wax ni la kii moo ko njëkk am kon donc nekk na loo xam ni tey gii lu lu doy waar la mais man damaa gis ni dispositif yi nga xam ni dëkk yi moom la ñuy def créer seen task force suñu réew nag ña ngay wax moom dëgg naa ñi ngi wax mais wax dëgg fa yàlla euh, préparation bi ci war dëgg-dëgg ah mm, moom daal moom euh, doy daal moom daal. réew ma moom. réew ma moom sëñ Pape réew ma moom euh, dëgg la yàlla yàlla nu yor waaye yàlla yor ñëpp waaw yàlla moom moom mi ngi fépp ñun ñi yàllaa ñu yiir te moom la ñu gëm wóolu ko waaye nag may wax sànq rek ñuy waxtaan fii ci kër gi ma ne leen euh, man virus bi maa ngi ñaan yàlla suñ borom bañ dugg Sénégal parce que euh, ni ñu ko nit ñi di déggee. comprendre guñu Sénégal dafa manquer information pour man Sénégal parce que bu fekkente ni lu tollu ni amna muy wër aduna parce que tay ñu ngi wax ni Corée raw na Chine ci ay positivité <laughs> donc bu Corée démé ba raw Chine c'est parce que virus bi évolution mu gaaw na gaaway bo xamanteni dëkk bu nekk war nga commencé jël say précaution di xamal sa réew yëf yi fu mu toll ak bu excès yan précaution ngay jël yan disposition nga war a jël ak yenn mesure la ñu war a teg pour que nit ñi di tegu ci mesure yooyu mais Sénégal nañ doon dundee ba ceeb ak daaw lañu dund noonu lañ doon dundee ba sànq noonu la dundee ba sànq fu la neex taxaw du lu la neex def euh, mbedd mi fu waay neex la bu ma amee sama liibaru fariñ teg commencé jaay lu ma c'est-à-dire amul dara loo xamante ni soppeeku na ci seen comportement ci ni ñuy comporté woo par rapport ak lii nga xamante ni xew na ba nga xamante dafa doon virus boo xamante ni du ngelaw moo jël di ko yóbbu nit rek moo ko mën a jël yóbbu ko fa mu fa mu jëm loolu rek moo ñu ciy dimbali moo ñu ci dimbali waaye bu doon ngelaw moo jël di ko kon yaakaar naa ni euh, dina dina xaw a doy waar lool dina xaw a doy waar lool parce que information bi ci war vraiment man maa ngi suivre télé Sénégal bo ba léegi mais information bi ci war deug deug deug deug deug dëgg joxuñu ko Sénégalais yi ne serait que pour ben semaine ñu acc télé novela yi ñuy teg heure novela yi ñu jàllale information yoyu parce que c'est une épidémie mondiale c'est pas une épidémie mais nag Pape télénovela yi bu bu Sénégal manifestation yi fees gars yi kese télénovela yi moo leen di révéloo sax au moins ñu fàtte seen soxla. <laughs> waa léegi loolu moom na la leer ni bés bu arrêté bu ñu arrêté woon euh, théâtre moom la waa kër yëpp di toog di seetaan moom. léegi ah. mais nga def ko da koy def publicité da koy def publicité ci biir télénovela yi. Mm. nit ñi ci bàyyi xel. mën nga ci euh, profito nit ñi au moins ñuy bàyyi xel ci. Euh, disposition yi ñu war a di jël di adopté parce que loolu dafa bokk ci suñu vie quotidienne maanaam boo génnee bu gaatee sa biir kër sëñ bi danga ngaa war a ñëw raxas sa loxo soog a jox nit ñi loxo nuyoo comme ñun noonu la mooñee loolu la ñu xam nuyoo la ñu xam parce que ci nga mën a jox nit ki loxo ñaanal ko jàmm yàlla na yàlla na jàmm sax ci yow mu delloo la ko. comme ñun loolu la ñu xam euh, dafay jaadu nit ki bu jógee fu mu mënti jógee bu duggee ci biir kër gi laxas loxoom nuyoo yooyu faw ñu ñu ñu ñu boole ko ci suñu vie quotidienne parce que su du sinon xam nga ñun chaque fois euh, ñun sénégalais dama yaakaar ni ci suñu DNA la parce que yu bari daf ñuy bett yu bari daf ñuy bett Euh, Ebola bi bi muy soog am avant ñuy jël ay dispositions sax sanitaires euh, déjà tàmbali na faat ay bakkan euh, Congo gële xam nga ñun sénégalais yi fii bu nuy maye këyit bala ñoo dem di rang dañuy xaar ba naari rang ñagi rang ñun ñu topp ci ginnaaw maanaam dafa mel ni ñun chaque fois rek dañuy bàyyi ba lépp leer ci sunu bët ñuy soog a jóg nag di dem di laajte ji information ak yeneen ak yeneen te war mën a nag teel a jóg ndax ay borom xel lañu te kenn ëpp ñu kenn ëppale ko amul benn xeet bu ñu ko ëppale macha allah man gëm naa ni sénégalais fu mu nekk te gëm boppam rek yaakaar naa kenn du ko fa ëppale dara man gëm naa loolu waaye faaw ñuy toog di taaxirlu faw ñuy toog di xaar euh, ba ñeneen def ñeneen def ñeneen def ñun ñuy soog a jóg te loolu yaakaar naa ni nag war nañ cee jóg ci suñu bopp ndax euh, évolution dafa gaaw évolution dafa gaaw fii lañ fi doon waxtaanee mbirum whatsapp bagage yooyu ak euh, réseaux sociaux yeeg ñàng nangam ak nangam mais li ciy li ciy dalaate man di dégguma tubaab bu mu dal wala wala wala keneen ku mu dal sénégalais rek lay dal parce que dañ cee waajalul suñu bopp léegi nag lii que ñuy toog di xaar ba dara ñëw këtt ni jonn di dal ci suñu kaw jóg waajal ko moom moo gën mieux vaut prévenir que guérir et eh, sunu sunu sunu sunu autorité yi eh, wax dëgg yàlla eh, ñun boobu ba léegi ñoo ngi wax man vidéo bi ma def sax maa ngi leen ciy lancer un appel pour wax leen ko ne leen ñun déggaguñu leen te vraiment ñu ngi solliciter aussi ngeen dem nemmeeku ñee nekk. du ñàkk dina am ñu ñëw mission xëy ci semaine bi. waaw parce que man day wax dëgg yàlla. alors gars yi cancellé nañ seen mission yëpp. <laughs> waaw mais xam rek dañuy ragal dañuy ragal gars yi dañuy ragal. dañuy ragal te il n'est pas dit que euh, yow boo demee foofu du ñu la may possibilité boo xamante ni mais yàlla anagrafe. te communes yooyu am nañu anagrafe te communes yi tëjuñu. Mm-hmm. tëjuñu ñu ngi ci biir di liggéey. Mm-hmm. commune ba boo fa demee boo boo boo leen téléphoné nga ni leen man la je suis l'autorité nangam ak nangam danañ la jox léeg ko yónnee la via mail léeg-léeg ko day sénégalais yi yónnee la seeni ay kii nga xool leen pour resalir xam ñi ñan la ñu am seen numéro téléphone mais sëñ bi mais technologie bi tey jii loo bëgg xam da koy xam kooku en une journée di nga xam sénégalais yi fa nekk kan la ak kan lu ñu tudd numéro téléphone am nga woo leen nemmeeku leen ne serait-ce nga def vidéo Skype pourtant Conte dafa def vidéo Skype kan si def na vidéo Skype ak yenn famille yu nekk euh, Codogno bien sûr mais mais man ma yow yow nee nga ma yaa ngi dégganteeg mais man man man man am na ñu ma ci dégg donc le contact le contact est là gis naa Baye Diop Baye Diouf ndeysaan momit it i cité ay tour wax telle personne mi ngi ci telle zone nangami nit ño nek ci par exemple telle commune wax nangami famille ño fa nek moy lima la wax par exemple ñun ñi rôle bi ñuy jouer buñ ñu xeeb te buñ ko buñ buñ ñu tuutil tay ji ka nga xam ni moo ci dëkk ba nekkoon nekkaloon fa communauté bi mais mais mais dëkk ba gox boobu amoon na association tey association boobu euh, même même buñu mënu mënul war nañ am rôle buñu jouer joué rôle ponte ñom ak autorité yi euh, euh, xam nañu membre communauté bi fañ dëkk yan condition tay jii dëkk bi ak ña nga xam ni dañu nekk ci ay conditions yu précaire parce que nak attention il ne faut pas dire que ni tay jii ñi ngi ci ñi ngi dugg ci deuxième semaine euh kii ni ñu quarantaine mais am na ñoo xam ne mënuluñ seen bopp am na ñoo xam dañoo feebar am na ñoo xam ni dañ daan dem yàlla rek moo xam war mën a dem di dem defi ay ay ay ay ay ay follow up yenn xeetu feebar yi nga xam ni loolu sax xëy na hôpital bi dana ko suivre parce que dana leen xam mais mm-hmm. ñu seet ñan ñoo nekk ci situation de difficulté a communauté bi donte sax mënu leen approché mais muy muy relayer information yi mën a taxaw di xaal xam lan la ñuy dund mais communauté loolu lay jëriñ dëkk parce que ñun ñun ñaanuñu xaalis suñu communauté euh, xam nañ ni suñu suñu dëkk dafa euh, euh, loxoom jotul ginnaawam mais nag mhm. war na mën a saytu ay doomam ci yan condition la ñu nekk lan la ñuy dund mhm. dalal xelu sénégalais yi tey jii man damay gis ni muy saar benn benn benn sortie la def benn benn communiqué bu bu bu bu gàtt boo xam ni daanaka yow boo ko déggee sax da ni waaw mais kii mooy président mooy mooy responsable sénégalais de l' extérieur yi wax dëgg fi àlla euh, dafa limité wu trop parce que man man man damay comprendre da ngay ñëw ni waaw euh, euh, consul bi mais mais war a génnee boletino boo xam ni ni ko waa waa waa waa waa protection civile di defee ngay mën di génne ay données maanaam statistique di eh, situation bii ñu Sénégalais yi ñoo fa nangami goné parce que nag attention le problème qui se pose il y a beaucoup de personnes qui sont avec leur famille ici ay xale. it nag hmm. boo leen xoolee am nañ ay mag tam am nañ wax dëgg fa euh, euh, ay zone yoo xam mais ay ay ay ay ay ay ñoo fa nekk ay ultra eh, cinquantaine ñoo xam ni. Eh, sëñ Pape doguma la ma dolli la foofu. mais y a combien de familles yoo xamante ni. amuñu capacité pour jàppale seen doom ci compiti yi te actuellement compiti yi ñu ngi leen koy jox via online waaw mooy argo bi argo waaw léegi ñooñu ci ban situation lañu ñu nar a nekk ci whatsapp lañ leen di yónnee compiti yi ci groupe classe bi léegi xale bi bu fekkente ni papaam euh, yàlla dogal na amul njàng boobu bu mu ko mën a taxawoo yaayam kazalika amu fi amu fi maanaam da nga leen da nga leen di waññi danga leen di waññi ci ci baaraam foo dem ci communauté bi da leen di wàññi ci baaraam Modou Mbaye Modou mbay bu amee ñu bëgg a dugg mën ngaa ubbi ligne bi ndax wax dëgg fa yàlla ñàkkul am mbokk yu bëgg a participer tey jii ci émission bi maanaam ma ni la dëkk boo dem ña fa nekk tey jii war a mën a dimbali communauté bi euh, tolluwuñu ci tolluwuñu ci euh, fukk yoo xam ni da nga leen di xool euh, di leen di leen di leen di leen compter ci baaraam. mu mel ni danaka euh euh presque ñu ci bari c'est des laissés pour compte loolu nag euh, euh, tey jii say kilifa ñoo war a mën di la wax ah sëñ bi de li nga nek métti na ñu ci and ak yow ci naka ngeen di dundé fo leen tollu mais delloo ci wat dalal xelu wa Sénégal ndax wa Sénégal actuellement nii tey jii euh, tiitaange bi ñu tiit bu ñu sañon manam dañoo ragal sax les italiens tay ji wax ji la nek ñemeetuñu hmm. ñemeetuñu tey jii dangay ngay xool euh, euh, gars yi ñi ngi commencé di wax ni daanaka avion yi ñëw ñi ngi commencé di leen contrôler xamaguma situation bi wax dëgg fa yàlla mais hmm. li ñuy dellu si dafa mel ni tey jii fii li fi nekk daanaka euh, kenn mënu ko maanaam genre aka aka aka aka aka aka aka ñu koy waay apocalypse moo fi nekk loo xam ni nit ñi Euh, te ñuy dund ci condition yoo xam ni dramatique mais loolu amul mais nag zone yi nga xam ni nit ñi dañ leen euh, tëj ci seen kër jaadu na ñu dem di leen saytu di déggante ak ñoom di def benn pont boo xam ni dinañ ko mën a rayale nga xam ni sénégalais yi comme loolu nga wax ñu arrêté léeg-léeg euh, wàllu politique bi ndax Sénégal boo xoolee jamono ji politique rek a fa nekk fi mu ne nii taluñu dara weekend bi lu dul troisième mandat. xam nga. Mm-hmm. waroon na mën a tey jii nga xam ni ña nga xam ni ñoo yor dund Sénégal yor dépasse su Sénégal mu di immigré yi rawatina immigré yi nga xam ni ñoo nekk euh, fii ci ci ci ci ci ci zone Italie bi euh, bokk nañ ci ñi gën a di contribuer ci Sénégal mais wax dëgg fa yàlla waroon nañ toog di dalal seen xelu njaboot yi nekk Sénégal muy am ay ay ay ay ay ay euh, ay briefing yu ñuy def di wax nit ñi nit ñi mais ñun xoolal ñun ñooy def ay ay daanaka boo xoolee. immigré yi ñooy mujjee di def ay live te daanaka boo xoolee live yi ay live yu sfogaare la sfogo mhm. ci ëpp dañuy critiquer journaux yi euh, te waroon a mën a teg benn benn benn lu mel ni li li Alioune Ndiaye def ak keneen ak keneen nga xam ni dangay ngay euh, def benn vidéo wax sénégalais yi situation bi fi mu toll wax sénégalais yi naka la ñu war a mën a def ba sàmm seen wér-gu-yaram ak moytandiku Euh, euh, euh, ba ba yàlla yàlla mi nga xam ni moom mooy dogal xëy na feebar ñu mën a ñu ñu mën cee mujj waaye bu fekkente ni tey jii boo taalee suñu journaux yi musique rek la ñuy tegal théâtre xoolal tey jii sunu mbokk mee démb bi mu bi mu faatoo sëñ Saliou Diouf mais mais mais niñ doon niñ doon relayer notice bi tu sens ni ñoom yakamtu wuñ lu dul xew-xew am Italie bañu bañu ba ci journal yi euh, euh, ya euh, Saliou Diouf a chité du fourno manam information yi daanaka ni koy déggee sax lañ koy lire keneen bu ko au lieu que information tendancieuse au lieu que ñu parce que dañ lay défal ben éditorial bo xamni yow boko ko danaka hmm. sa yaram day daw par rapport ak notice bi dara du ci bokk te it ñu warona mëna dem jëli ay information wax ak ñi dëkk ci dëkk bi ba nga xam ni tey jii bu ñuy def seen euh, journal rajo yooyu euh, tey jii Sénégal boo nee coronavirus gars yi daw xamuñu sax lan la xamuñu lan la fi ne nii ñu ci bari xamuñu ko ñu nekk ci àll ba yaakaar nañu ne tey jii euh, lu doy la loo xam ni fekk ne maanaam xeetu sibiru la boo xam ni xëy na sax mën na am Euh, euh, euh, beneen côté bu ñu demee ba isolé ko ni ñu koy fajee mooy mooy mooy gën a yomb xoola ñun tey jii malaria ni ñu ko ni koy détecté ni ñu koy fajee fii boo ñëwee maladie infectieuse lañ lay yóbbu. kon mu mel ni ñàkk taxaw beeg ñakk information akit it ñàkk maanaam gëm sunu sunu sunu sunu sunu sunu doom xëy na man daal xaw ma laa koy tuddee parce que tey jii dama gëm ni immigré yi gën dañ leen a manam taxaw taxaw boo xamni way waxuma la sax teg ci condition yi nga xamni président de la république sax ndax ñoo yor Sénégal mais mais mm-hmm. danaka bo xolé bu ñu nekkee ci ay difficultés danaka ci la ñuy gën a ci la ñuy gën a abandon bu ñu am motax man danaka damay xawa am esprit de révolte ci ci ci gouvernement yi waxuma ko nak gouvernement gouvernement yépp la euh ndax it euh, boo xoolee ñi fi ñëwoon ñëpp même politique la ñuy am fi vache mm-hmm. la ci rek lu ñuy wut si rek bu ñuy wut si moom da gis ni dañ fi bari tànk lool bu fi bu fi euh, xeetu euh, euh, vote jege nga xam ni dañu war a woote nga gis semaine bu ne nit ñëw fi indi tuur fi xaalis commencé boole immigré yi nga gis tey jii parti sangam di xuloo parti sangam loolu ñun ñëpp dañ cee war a yeewu man dama gëm ni tey jii immigré yi dañu war a changer taxawaay. am li ñuy wax esprit de patriotisme créer benn taxawaay boo xam ni ñëppay bokk fu ñu taxaw waaye nag léeg-léeg da ngay dem ba da ngay waaru ndax it euh, li ñuy wax politicien moo am xarañ boobu léeg-léeg day dem sax ba yow mii sax da lay booleeg say mbokk euh, boo waxee <laughs> lu lu safaanoog ñoom ñu ñu fexe ba nga xam ni daanaka dañ lay tàmm yow yow yaakaar ni yow da ngaa da ngaa soxla seen place fekk yàlla xam na ni Euh, intéressé moy euh euh askan bi jëm kanam te it ak sunu dund fi ndax biñ fi ñëw xalaat yiñ fi woon xalaatu politique euh wut condition yu yu yu yu gën yi ñuy dundé yiñ ñu daan dundee moo ñu ñëw fi ndax fi kenn ñëw fi pour pour la belle vie dañ fi ñëw parce que dañu bëgg changer une vie donc buñ fi ñëwee am ay difficultés dañu war prétendre sunu dëkk taxawuñu seen baax xam nga sëñ Pape euh, am na am na loo junj léegi maanaam euh, ñu rôle bi ñu am parce que parfois nit ñi aussi dañuy dañuy xaw a jaawale dañuy yaakaar ni euh, sëñ Pape Demba kat fés bii muy fés wala lii muy kaas wala lii muy wax wala Pape Mokhtar lii muy wax ak lii muy kaas lii muy wax dafa am fu mu teg bëtam wala dafa am lu mu bëgg a doon wala nangam ak nangam te yàlla seede na ni yàlla ñu tiim seede na ni. ñoo ngi rek suñu liggéey ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax waaw amuñu lépp luñ bëgg nag amuñu lépp luñ bëgg ndax moom lépp matal moom yàlla suñu borom rek moo ko man waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax te liggéey bi ñuy liggéey waxuma sax euh, bu weer dee dan danañ ñu fay duñ ñu yoreel un franc ndax luñ mérité la waaye jaamu yàlla biñ ciy jaamu yàlla rek ñun doy nanu benn ci lii ñuy def nii Rok bi ñuy tok di gindi suñu mbokk suñu suñu mbokk talibé di gindi suñu mbokk julit yi rek xétu jaamu yalla la go xamanteni nit ki jël téléphone am woo la depuis sardegna am ci yow yaakar am ci yow yaakar gu tollu ni né ah ki kat suñ pap dem mi kat buma ko wooyee dana ma jox euh, dana ma jox tontu bo xamanteni dana dalal sama xel ci li may deugmal ni lolu xétu jaamu yalla la kon ñun li ñuy def dañ ci sant yalla bu baax bi pour ñu diko def ñaan yàlla it mu may ñu kàttan buñ koy wéyale teguñu suñu bët ci ma sàmba teguñu suñu bët ci ma demba te it ñeewuñu ma sàmba ñeewuñu ma demba ndax xam nga euh, ku la yërëmul du la ñee xaw ma noonu la ko olof di waxee xaw ma ku la ñeewut du la yërëm mm-hmm. am na daal nu ko olof di waxee waaw euh, ñun dañu am un devoir dañu am un devoir am nag gis-gis ci dëkk bi parce que nag liggéey bi ñuy liggéey di lëkkaloo ak tubaab yi xam li nga xamante ni tubaab yi euh, li nu war a gëstu ci ñun gëstu ñu ko ba war ñoo jox suñu gëdd dëgg dëgg dëgg dëgg ñu ne comme nag ñun ñoo ngi liggéey ci seen biir te loo xam sàmba bàcc gën laa xam boppam kon ñun ñuy gëstul suñu bopp di indil suñu njaboot mm-hmm. <laughs> ñun kay loolu moom muñ ci dugal kon nag lii ñuy def yàlla mu ñu tiim seede na ni genn wàll gi li ñuy def yépp état la waroon état rek la waroon waye nak ñun dañoo japp ni ñun toogunu di xaar état état bu ñëwee daf ñu ci fekk bu ci jappé xayrun bu ci jappul ñu défaral suñu bop rek waxal ak suñu bop waxtaan ak suñu njabot li rek la waaw kon bu keneen nak xalaté ke ni ñi dafa am fu ñu tek seen bëtt wala fu ñu tegul seen euh état état d'esprit la rek état d'esprit la ak way parce que parfois nit ki aussi fay am yenn limite man la sëñ pap Demba di def Firenze dama ci contane lol nawloo ko lolou ci lolou muy def nonu ndax ma ngay dimbali doomu adama yi fofu ndax tollon non jamono bo xamanteni xeyna lolou tumuranke won nafa le Massayer di def Venezia dama ci contane lol big ci lool di ko ñaanal lol yalla may ko katan bu mu kon di def ndax tolloon nañu ay jamono yoo xamante ni sénégalais pour ñu gisoon sénégalais bu la ne woon yaa ma ne woon ma ne la jafe woon na lool. Mhm. waaw dafa mel ni sëñ Abdou Lahat nii moo dugg si de. salaamaaleykum maaleykum salaam mbokk mi salaam. kooku. waaw mën a baara ak ge Touba Parma. ñu ngi ziar bu baax sëñ Laat. ngi leen di siyaare bu baylaat maa ngi leen jaajëf ba ci liggéey bi man nag xam naa woote bi bari waaye dama leen ni wane nii wax ni ne nit ñi si boppam bu leen jàpp leen noo ngi leen ni teewlu bés bu ne mhm. bisimilah mhm. ñu ngi ñu lay déglu mhm. waaw jàpp leen nit ñaa ngi leen di teewlu de xay na woote bi xam naa am ñam dul ma am possibilité mën a woote am ñaam tim xam nga Skype daanaka yoratuñ ko. ko mhm. WhatsApp rek la doxal. Mhm. Mhm. moo tax ma leen bu leen tàyyi. jàpp leen nit ñaa ngi leen teewlu. bu nu wootewul noo ngi leen teewlu guddeeg bëccëg suba ngoon. dëgg la waaw ko waxee moom lu am solo la. kon yàlla na yàlla defal dégg ak topp. comme ni ko Pape Demba waxee tamit wax dëgg yàlla. samedi rek ñun def nañ daayira mm-hmm. daayira bu mucc ayib daayira ba am si man sax wax naa leen man li ma def nii daanaa teew daayira sa duma ko def ndax mm-hmm. ndaxte ci whatsapp bi leen ko defe ka yi ci leen ko wàccee salaatu ala nabi ci leen ko joxe xasida yi soxla lim bi ci leen ko joxe ba ñetta mm-hmm. ñi ñibbi ñi nekkoon ci daayira sax ñibbi Sénégal dañ cee bokk waaw xam nga loolu moom xam nga liggéey sëñ moom mën nañ koo def si fàll gu ne kaasu kafe maa ngi kaafe gi kaafe gi manquéwul ndax de mën ngaa tàngal sa teg sa baraada ñu toog sa kaal bu tënd nga xel doo naan tàng di ñëw <laughs> dëgg yàlla xam nu bët biñ koy jàng ñëpp teewul nan yaa nga sa saal waaye mel nan yaa nga ca daayira ba alhamdulilah mm-hmm. waaw dama damay dool rek ci li nga wax noonu moo tax ma ne xaaral ma dugg wax dëgg yàlla. Mm-hmm. wax li nga wax moom lu am solo la wax dëgg daayira moom def nañ ko démb te kenn demul daayira kenn dajewul. sa nan ko mm-hmm. defe démb dëgg yàlla daanan teew daayira sa nu ko def. Mm-hmm. man mi daanaa daw cinquante kilomètres dem daayira. sa la ma toog def ko ci sama saal bi daanaa daw cinquante kilomètres dem ca daayira bu duma ko def. dëgg la. ci joxe ma def ko ci daanaa toog cinquante kilomètres dem ca daayira ba daanaka faay toog ca bibliothèque ba di waxtaan ak kay yor téere ya mm-hmm. Mm-hmm. daanaka dum dara duma ko def waaye démb bin ubbee sky eh, kii bi whatsapp bi trois heures huit lan tëj def daayira bi mën naa ne mbooloo mi lan def démb daanan teew daayira sa ko def macha allah mm-hmm. waaw comme loolu nga wax rek suñ paam moom laay dëggal nii nan ko jëfe lu am solo mm-hmm. jaam yàlla moom mën nañ koo defar fu liggéey sëñ benn mën nañ koo defar fu mm-hmm. Mm-hmm. waaw liggéey sëñ mooy mooy jaamu yàlla rek dëgg la ndax dara génnul daraam génnul yonente bi yonente beeg lépp mi ngi ko jëmale sa suñ borom noonu dong la demee waaw ñoo ngi sant bu baax a baax gars yi nag xam naa duñ waaye nag. non gars yi ci dafa mel ni yow yaa yow lañ doon xaar da ngaa dugg rek. ñi topp ah, sa ginnaaw bari na ñi topp sa ginnaaw kon naa gàttal jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Baye Laat. jërëjëf salaamaaleykum gars yi. maaleykum salaam ko ak ko jëriñ la. waaw sama gars yi maa leen Diouf Diouf. lay ziar bu baax. waaw waaye yéen yéen yéen mbaa amu leen amu leen foo leen di bañ. yéen camionnettes yi. ah ñu ne fu ñu terewul rek eh, ñu dem. waaw ah, mais amuñu fu ñu di tere. waaw eh, ku mel ni Massalengo ay zone loodi bi moom am na logistique yoo xamante ni loolu tëjoon nañ ko mais li ma mujj xam man mi actuellement nii maa ngi liskaate. te diggante Liscaate ak euh, loolu sorewul actuellement ni itam xam naa waa Codogny ñu ngi leen di déglu parce que am nañ suñu benn collègue bu fa dëkk euh, Babacar Bité yi xam naa mi ngi bëgg a dugg ci rajo bi pour jox leen détails yi nekk foofu sax mais xam naa Skype la Skype bu lay installé nii xañ na jombul balaa émission be jeex dina dugg waaye mi ngi leen di dégg. waaw ñu ngi koy xaar de ci garage Touba bokk. waaw gaaru Thiel Touba Italie la bokk en plus itam auditeur la ci rajo bi yaakaar naa mi ngi ci biir sax rejoindre ba euh, Babacar bi tey dugg na. alhamdulilah euh, en plus itam auditeur la boo xamante ni wax dëgg yàlla bokk na ci auditeurs yi nga xam ne bokk na ci kuréel gi nga xam ne ñooy auditeurs yu yi nga xam ne ñoo rajo Xassida online. jërëjëf jërëjëf. di leen jaajëfal bu baax nag tey ñaan yàlla li nga xam ne mooy liy tiit ñëpp mu yem fi. Eh, comme ni ngeen ko waxee rek manque d'information ak li nga xam ne suñu taxawaay lañu war a def ñun en tant que sénégalais surtout muy état bi muy association sénégalais yi nga xam ne li ñu war a jël ci euh, précaution muy d'abord informer sénégalais information bi nga xam ne moo war. Mhm. ci li nga xam ne bu dalee suñu kaw. Euh, li nga xam ne moo xawoon démb Bergamo muy Baye Saliou Diouf mi nga xam ne. ma wàcc ci liy démb. ñaanal yàlla xarit mu doon suñu wóolëree. Mm-hmm. Euh, ku ñu jege lool wax dëgg yàlla euh, démb yàlla dogal na bi xew-xew ga am ñun bokk nañ ci ñu jëkk ca di taaba doon ko taxawu ndeysaan ak aat bi ba fi may wax yow léegi lañ tàggatoog njaboot gi mm-hmm. Mm-hmm. nekk ci yi nu ñuy xool nu ñu koy jébbale suñu borom yóbbu ko Sénégal di leen xamal ne comme noonu ngeen ko waxee rek information yi bëri ñu dégg ñun wax dëgg yàlla jaaxal nañu lool ñu ko wax fu ñu ko jëlee euh, te wax dëgg yàlla biñ ko tiisee itam itam wax dëgg yàlla ndax am nañ ci wutiis lool ndax information nit ki bu faatoo itam baax na ci nga réserver nga nga suturaal nga wax li nga xam ne la mu fu mu jógee di na mu nekk boo ci wax dara war na laa leer daal ndax ay mbokkam dañ koy dégg ay dañ koy dégg te wax dëgg yàlla demewut noonu mm-hmm. Mm-hmm.

non non non même journal journal italien yi sax bi ñëwee ci jitaa bi man maa ngi fa woon euh, d'abord xam ngeen fi bu accident amee euh, du ñu permettre journalistes yi ñu génne yenn images yi mais journalistes yi sax avant ñu fay dugg euh, corps bi sapeurs yi récupérer nañ ko ba paré ambulance bi jël ko ñu ñëw introsé wala ñu jël image jitaa bi mom mais xam nga ne accident bu amé do gis corps journaliste du photo procureur procureur lu mu jël en charge sax mais kenn du ko kenn du ko kenn du ko. lii te lii dañ koy séquestrer euh, donc euh, loolu moom xañ na dañuy jàpp ñoom ni muy amee Sénégal la fii mais loolu moom bu amee xam nga ne duñu permettre kenn ngay jël benn image. Mm-hmm. te li ñu war a njëkk def ñun ndax itam mbirum sutura la mbirum mbirum privacy la euh, ci diggante di temps bi nit ci faatu na condition yi la ca la yéen a gën a xam la la ca war a am dafay bari. dëgg la. Mhm. suñu suñu suñu taxawaay mooy le tout ñu def ko ba lieu ñu séquestré ko procureur séquestré ko parce que buñ ko séquestré wut. xamuñoon condition yi mu doon liggéeyee machines yi ndax nekkoon na norme wala nangam ki nangam te yooyu yëpp tam ay mbirum. yoon ay ni yoon la donc euh, luñ dul mën a wax la daal donc. Euh, mhm. dem di ko filmé moom yaakaaruma ne wala. Euh, mhm. journaliste mu koy jël moom yaakaaruma ne mën naa nekk. xam nga xam nga sëñ sëñ Modou xam nga information tendancieuse fa mu koy yóbbu moo doy waar ndax xam nga bu fekkee dañoo bind rek nii euh, dafa daanu ci fuur yam foofu ni point xam nga yow sax xel boo dee mbokam wala ngay sax sénégalais lambda rek danga nga naan kon foofu koor amatu fa ndax ku xam fuur li mm-hmm. nga xam ne ñu ngi wax ay quatre cent degré six cent degré fuur noonu la noonu lay tëddee daan na parce que four yi sax tàkku ñun parce que moom quatre heures du matin la xëy. voilà bi war a cinq ñu war a taal kii dañ doon benn kii boo xamante ni euh, euh, treize mètres la ci kaw mu yéegan di ko war a ubbi euh, fa la daanu mais bi mu daanoo four yi moom tàkku ñoon parce que commencé ku ñoon liggéey nekk ku ñoon en pleine activité hmm. dañ doon doon ay si daanaka quatre heures du matin la génn këram boo xoolee kaay mi ngi am cinq heures juste non hmm. donc hmm. machine bi muy daanu machine yi taalaguñ ko fi mu daanu moom ci euh, tàngaay yooyu wala fuur moom amagu fa woon. Mhm, mhm. merci na ñu leen koy ziar bu baax sëñ Modou. Euh, ñu ngi leen koy daanaka daanaka mën naa ne ñu communauté sénégalaise li ñuy dund métti na. Mhm. ndax lu weesu lu weesu xew-xew yi daanaka euh, xew-xew bii ñu nga xam ni moo lëmbee àdduna bis bu ne sunu quotidien mooy lii. ndax maa ngi xool démb ay image argentine benn sénégalais buñ fa nawtal dóor ko daax na kay xate yaram bi yëpp police nga xam ni tey jii suñu autorité yi ñu war a ak ña xam ni ñoo war a di taxaw di parce que aar sax du dafa waaye di jóg sax war ñoo waxal euh, léeg-léeg wara ah. ku ñu ku ñu war a war a war a war a layal jóg taxaw ni lii kat ëpp na wala lii du yoon waaye ñun daanaka boo xoolee lu ñu defalu suñu bopp kenn ñu ko defal lépp fayda eh, lépp fayda teel démb bi mu amee fi mu amee ak Milan <laughs> vingt minutes la wala quinze minutes man mi bi ma déparé déparé sama kër dégg ko fi ma dëkk ñun mais daayira Serigne Touba bi ma président daayira si waakari bon muy fayda teel bu ma ko waxee muy association sénégalais daayira yi ñoon ñooy joxal suñu bopp ndax ñoo fa taxaw ñoo fa dem ba fi may wax yow nii ba tey man <coughs> dégg gu ma autorité sénégalais bu fa ñëw waaw ah, ba dégg gu ma ko bokk Mhm. gisuguma ko itam te it fi mu amee ak euh, consul du Sénégal bi daanaka suma vingt minutes la te mhm. Sindaco yi dëkk Sindaco yi dëkk foofu sax def nañuy déplacement ñëw fa ay tubaab yoo xam ne dañ faa résidé nga ci dëkk bi lañ dëkk ñëw nañ fa xut mhm. euh, te italien yi sax dëgg yàlla nekk foofu massawu njaboot gi waaye nag euh, en tant que sénégalais moom wax dëgg yàlla rafetoon na lool lool bu xewee autorité sénégalais yi kenn bañ leen faa njëkk doon ceeg ñun yilif ñu yomb ña ndax lii bu mu amee moom xaaruñu dara ci autorité ndax bu dee yóbbu gi la sax démb bu doon kon weekend bi malade bi mu dajeel ni yaakaar naa ne suba mu dem mais weekend bi mu dajeel la euh, sinon bu doon lool moom la ko war a yóbbu yemb na bu yàgg ndax agence bi ko war a yóbbu avant mi di jot na document yi. doo war a xaar certificat di di Thiès Sobi. macha allah euh, lu la am bu ko am lu la Sobi moom bu amoon yaakaar naa leen di mu dem ndax euh, li engagement bi daayira Serigne bi nga xam ne la bokk muy Touba Bergamo. ba mu amee rek la jël cas bi euh, la ca war lépp euh, yónnee ko euh, agence bi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal ci côté boobu ñoom ñu engagé wu ci pour def lépp. Mm-hmm. donc ñun liñ soxla woon rek xañ ne na en tant que sénégalais wala doomu réew mi bu loolu xewee. Mm-hmm. autorités yi ñëw taxaw defal njaboot gi loolu moom doon na ci am solo lool lool lool. Mm-hmm, loolu daal fu ñu dégg loolu mën a wu dem fa daal. yéeme na yéeme na yéeme na yéeme na. wareef loolu xanaa mbokk mi nekk ci ligne bi mel na ni jaajëfal jaajëfal bu baax nag di sant bu baax waa rajo bépp di jaajëfal Modou Mbaye Thiam ak mbokk yi ñu déglu yëpp di nuyu routier yi nekk ci tali yëpp di leen wax yàlla na yàlla defal jàmm. amiin amiin day def ñu ñuy respecté normes yi nga xam ne moom la waa dëkk bi tëral ñu ñëpp ñu respecté ko rek ndax tam loolu rek moo ci tax ñu mën cee mucc daal ak ndaje yi nga xam ni ñu ngi koy woote surtout fii ci Lombardia bi muy daayira yeeg yëpp daal ñu moytu ko ndax euh, comme lu ñuy tere la daal ñu jëm ko respecté. dëgg la ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf sëñ Modou. jërëjëf dafa mel ni amoon na mbokk mu nekk ci biir salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. mbokk bi tur bi naka la ak fooy wootee. Babacar Biteye daa doon fii Kodoño. ah sëñ Ba ah sëñ bi. Ah. waaw yéen de moom. yow yow Biteye yow Biteye ndeysaan kenn mënatu leen wax leen ndeysaan. <laughs> waaw. ñu ngi leen di sant bu baax a baax nag te di leen gërëm di leen euh, ñaanal yàlla li ngeen bëgg yéen yéen ko xam yal leen ko yàlla defal. jërëjëf jërëjëf tey sëriñ Tuubaa di siyaare bokki taalibe yi nekk ci biir ñëpp rek en sama euh, président bi génn sànq muy sëñ Modou Diouf. ndeysaan jàmbaar. Modou mbay cam ak yéen ñooñu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax sëñ Abdou laat mi génn sànq. ndeysaan. ñu ngi siyaare ñëpp daal di leen xamal ne daal ñoo ngi ci jàmm. ndax sànq am na sama mbokki taalibe yu moo sax dama wax ne ma na nga fexe dugg. dëgg la. dalal xeli gars yi. Eh, mhm, mhm. ñu wax dëgg yàlla ni ñu maanaam ñu ngi fi depuis affaire ba mu tàmbalee ba léegi. Mhm. waaye bépp Sénégal bu nekk fi ñu ngi dëgg moom ñu ngi ci jàmm. mais mais Codogno Codogno communauté sénégalaise bi ci na ci ñaata la toll ci lim. il ay quatre vingt deux personnes mën na ko. Euh, quatre vingt deux lépp total wala ay ak seen njaboot. no ak seen njaboot après même Caster Busta Lengo eh, biñ compté luy tollo cinquante deux personnes ñoom it ñu nga fa mm-hmm. mm-hmm. Caster Lione Daada am na benn dëkk bu nekk foofu luy luy tollo huit personnes daal ñu nga fa ñoo seen njaboot mm-hmm. saal bi fii daal xam naa ne ay tuutee koy manqué deux cent personnes uh-huh. muy sonuri muy Caster Busta Lengo Kodoño Caster Lione Daada ak Malayo uh-huh. yooyu yëpp dëgg la waaw loolu mooy def ah, ñu ngi ci jàmm alhamdulilah alhamdulilah. waaw council bi nag woo eh, nañu. Eh. Mm-hmm. waaw sëñ bi tey maanaam yéen déggante ngeen ak autorité yi. waaw autorité bi maanaam euh, council bi mu wax dëgg yàlla sonn na ba fexe am suñu numéro. yéen ñëpp. Mm-hmm. waaw non dafa maa woo sax man bi ma woowee man maa ko dugal suñu Skype. alhamdulillah alhamdulillah am nañ ab groupe mu mu dugg ci groupe bi dalal xel wax ñu ñu ngi seen ñu ngi seen côté lu ngeen soxla rek ñun apporté euh, ubbeeku nañ ci lépp daal mm-hmm. wax dëgg yàlla gars yi yëpp rafetlu neen ni mu doxee mm-hmm. waaye nag sama mbokk taay bi sànq dama wax mu ne yónnee neen fi ay masque ak mais fii moom dara ñëwagu fi tey ah. waaw am na ko fi ay masque wax ne li yónnee la mais dara waaye mhm, mhm. ah, nag Sénégal yi fi nekk ñëpp ñu ngi ci jàmm. waaw léegi léegi yéen Modou ñaari semaine yi nga xam ni da ngeen ko nar a toog. Mhm. maanaam ci wàllu rifornimento alimento daari année alimentaire ban ban comportement la état bi di di di di dem ak yéen ndax tey jii xam nga ni euh, bu dee dañoo tëj dëkk bi. Euh, mu nekk ci zone bi nga xam ni daanaka mooy fokkolaayoo italiano bi. ndax fa la yëf yi gënoon a euh, lëmbër daanaka fa la tàmbalee mooy mooy mooy mooy yokku bi. Euh, mm-hmm. ñu gis ne kon dañ ko tëj léegi euh, nit ñi jaxasoo bi foofu wëratul maanaam pour ay dem ci ay supermercato lu mel ni ay ndox ak xeetu yëfi jóobeen yeeg yooyu yëfi yëf yëfi seen yi noo leen di def yéen foofu. loolu de na am na ñoo xamee di ñoom affaire bi avant muy am dañ ko annoncé. Mm-hmm. ñu bëri dañoo dañoo jëndoon lu bëri dugg dugg dugg dugg seen kër yi def seen kër yi. Mm-hmm. man sax am na ñu may woo léeg-léeg da laaj ndax am ngeen lu ngeen manqué parce que comme man maa ngi amee euh, am naa déroga ba man na maa génn. Mm-hmm. man damay génn ndax même barki dem man ba ñu ci la nekk sax mais comme man bu ma xëy rek damay def sama masque rek génn ak camion bi. Uh-huh. génne fóore fi lay def espèce. Mm-hmm. sax bi weesu nii rek dafay mooy espèce fii ci dëkk bi ndax fii sama benn mbokk taal sànq ne ne ma bi mu génnee moom di def espèce. rang na ñetti waxtu ci ci supermercato ak mascara bi mais nag euh, wax dëgg yàlla ñun ñëpp ak jàmm daal. alhamdulilah. Hmm. ma ne damaa génnoon damay génn bu ma génnee def sama def sama mascara ba génn taal sama oto génn dëkk bi rek bu boobaa moom génn nga son son péricolo. Hmm. waaye wax dëgg yàlla daal ñëpp a ngi ci jàmm. Hmm. alhamdulilah. waaye ñu ngi jàmm ñu Sénégal yi nekk daal ñu ñaanal rek. incha allah. yàlla yàlla yemale ko. mu bañ jàll fenn. boo amee yeneen loo ko laajaat. Euh, maanaam sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi foofu euh, doon liggéeyee ci biir dëkk ba. Mm-hmm. Euh, yan jafe-jafe la ñu am ak yan précaution nga jàpp ni yëg ngeen ci lu ngeen yëg yéen. diitaa euh, bi ndax dina leen fay du leen fay ndax dañ leen mettre en malatia wala wala wala yu ni mel. waaw fii de. Mhm. Mhm. Sénégal yu bëri li ci ëpp am na ñu bari ñoo xam ne li ci ëpp ci benn diit euh, màccalaay ci la ñuy liggéey. Mhm. yàlla defee yoo xam ne affaire bi am na ñoom ñëpp dañ leen yónnee vocal. vocal li ñëwee ne leen ni ngeen restaré kaas yéen ñëpp affaire bi dañ koy fay comme malatia. enquête même bu amul recevoir bi. recevut certificat de médico bi dañ la koy fay du tee dañ la koy fay comme maladie waaw mm-hmm. ah, ñooñu daal loolu leen li ñu wax waaw li tax ma laaj loolu dañ koy fay comme maladie même boo amul certificat yi dañ la fay effectivement foofu disposition wu ministère de la salute la ak ministère del lavoro ñoom ñoo mm-hmm. tënku ànd euh, waxtaan ci loolu mm-hmm. zone yi nga xamante ni zone rossa la Euh, ñi fa liggéeykat yi fa nekk soxlawuñu dem di dem ci docteur pour mu bindal leen malaatiyaat mm-hmm. waaye comme xam nga mbokk sénégalais yi ñu ci bëri duñu déglu information mm-hmm. euh, comme ñun yàlla dogal na dañuy suivre information bu baax euh, loolu bëri dégg day des mm-hmm. te am na ñoo xam ne nii liñ dégg ci cinq cent euros bi ñu dégg noonu am na ñoo ñu ngi jàpp dañ koy jox kenn ku nekk ma dégg nga xam ne li man ni ma ko déggee mooy cinq cent euros yi képp koo xamante ni da nga am am da nga wéré tere laa liggéey ci leen wax ne mm-hmm. dañuy joxe cinq cent euros weer bu nekk mm-hmm. waaye doon na xeetu xeetu amortisateur social la daal waaw mm-hmm. message moo doon ñëw noonu ma a doon waxee noonu rek ay xam naa ne Loun moun kanda lunye ki al, waye des nan lèr bo lège. Dè gè la, mhm. dè gè la. Don fèt pou koutan moun disne. Se mbite, manan moun disne nyon ni par ekzample euh, hmm, protection sivil ak euh, euh, region Lombardia paske kham gen ni deki yi fi, da fèm dejen kramen to. Te yi etan bi da fèm loun mou yor, waye rejon yi, wale sanita at edukasyon yon moun yon kèr. tey jii hmm. ñoo koy monitoraare. Euh, hmm. ñu gis ni par exemple ci bés bi gën ngaa tuuti. Euh, civil euh, ak ak ak ak kii bi nu mu tudd ak ak région Lombardia ci sanitaire bi danañ def benn briefing boo xam ni dañuy génne communicato stampa yéen communicato hmm. stampa yooyu daf leen di fekk si ci kër gi wala maanam dañuy am ay moyens de information wala télé rek ngeen di am comme comme. Ah, comme moom ci télé dong la am de. kon nag dafay jaadu ngeen fay télé Sénégal yi te te jàpp nag télé Italie yi. waaw non télé télé Italie dong la ñuy jàpp ñun koy télé Sénégal yi si si si si seetaan yëpp télé italien yi la télé Sénégal yi kay moom dégguñ ko fenn. ndax daa bëri <laughs> daa bëri euh, suñu mbokk yoo xam ni daanaka bu ñu nekkee ci kër yi. damay siiwur bu Rome bi bu ko defee en direct. Mhm. protection civile buy def en ak bu Milan bi ndax fii Rai News quatre boo ko jàppee dara du la ump ci ci ci information yi. dëgg la dëgg la. waaw ah, man damay déglu damay jàpp Ray News lay kii ñaar yëpp toujours dañ koy def en direct. Mhm. moo tax daanaka ci télé yi da la ñuy déggee information mais fii moom kenn génnul demul fenn kenn demul fenn yéen demul dara. jërëjëf daa mel ni daa mel ni am na mbokk mu nekk ci biir de keneen. Ah, kon ñu gàttal di leen sant di leen gërëm di sant nag euh, suñ Mouhamadane suñ suñ suñu bu baax a baax ak euh, suñ Ibrahima Ndiaye. jërëjëf. gaa yi ci ñëpp daal gaa yi ñëpp rek sëñ Jawar Seck ñoom ñëpp rek. jërëjëf jërëjëf jërëjëf bi tey jërëjëf jërëjëf. di sant bu baax di jaajëfal xam naa ñun nag dañu mënul wax. waaw mais mais li nga def tey am na solo lool ndax ndax tey ji defe naa ni Italie ñiy nekk fii bu ñu déggee seen baat seen xel dina dal te it euh, jaadu na ñu dégganteek euh, sunu mbokk yi nekk foofu. ba xam ci yan condition lañu ñu nekk pour mëna relayer message bi tam dal xelu dal xelu arkan bi ndax li ñu wax ne ma duggal rek man mom dama mëna a señ mo Modou ne amna li eh, am na solo lool am na solo lool bi tey bu ko xeeb jërëjëf jërëjëf ah, jërëjëf jërëjëf baax na bi tay eh, da melni señ Bass Diop mi ngi ci ligne bi salam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah wa kay señ Pape waaw xanaa xanaa jóbeen yi ma doon kii moo tax ngeen ngeen ngeen ngeen di sot dégg dégg naa la de <laughs> bisimilah dégg la ñu ngi leen di ziar bu baax di ziar Pape Matar di di la di la Diop Diop samay référence waa Parma <laughs> man damay wax ne damay tiifo <laughs> maa ngi nuyu jëwriñ Modou Diouf moomu génn léegi. jërëjëf euh, ndeysaan di ci jàmbaar lool ci rajo xasee doon layeen ca. bëgg ko lool ko jàppale saa su nekk. Mhm, mhm. di Modou Mbaye ak bokk yi nga xam ne ñooy dégg suñu kàddu yëpp. Mhm. Eh, xam naa bëggoon a indi tuti ci li nga xam ne moo xew ci dëkk bi ca daanaka fi mu ne ba bitim réew sax dañ lay woo saa su nekk kenn ku ci nekk di tiit ak a jàq wax. Eh, eh, ndax yàlla dafa dogal sëriñ bi nga xam ne moom la ñu àndal eh, suñ boroom da ko may loo xam ne mayu ko ñu bari ca lu baree bari mu bàyyi woon ko xel lii nii jërut kenn di ci tiit wala di ci jàq hmm. wala di ci jaaxle dafa am loo xam ne moom moo jara moo jara ragal bokkut ak coronavirus liñ war a ragal ñun bokkut ak coronavirus dañoo war a ragal rek teg suñ tànk fuñ ko wërta teg mooy e, lu lu neexul yàlla maanaam ñàkk tënku ci ndigal ndax sëriñ bi dafa waxoon ne nit ki bu fekkente ne dafa tënku ci ndigal di jëfe ndigal di bàyyi tere di def lu baax bàyyi lu bon kooka mënta daje ak coronavirus ndax dañoo bokkut fuñ jëm mm-hmm. mënta daje ak lu dul coronavirus itam lu baaxut ndax bokkuñ fuñ jëm dëgg mooy tombam yi rek borom ñeenti tomb ya mooy mooy tomb ya waaw mboolem li muy ragal day jëm sowu moom mu jëm penku. Mm-hmm. nit ki na daje mënoo jëm penku am lu jëm sowu ngeen di daje mënta nekk. kon ñun li ñu war a ragal mooy teg suñ tànk fuñ ko war a teg. Euh, di di di ñàkk tënku ci ndigal. wala wala wala wala wala bañ a def lu baax wala di di def lu bon yooyu lañ war a préoccupé waaye coronavirus ak lu dul coronavirus ñu waruñ cee préoccupé li ñu war a préoccupé rek mooy jël suñ tànk di ko teg ci kaw xal yi. Mm-hmm. bu loolu jàle it maa ngi nuyu Babacar bi tey moomu génn léegi. Mm-hmm. di ko siyaar. Euh, li mu wax am naa ci am naa ci tuuti tuuti ab xalaat xam naa mi ngi may dégg euh, ndax dafa wax ne euh, moom damay génn bu ma génnee dem ci bitti dafi dafi espèce xam naa moom sax intellectuel la dana xam na muy na muy na muy na muy defee na muy ak na muy na muy na muy waxee dugg ak fa dugg waaye ñu bàyyi xel ne bu fekkente ne da ngaa nekk ci zone rouge bi nga bàyyi xel bu baax euh, maanaam yow itam yamale yamale say jéego cay dox tànk yoo xam ne yu mënta ñàkk la ci di di bàyyi xel di bàyyi xel feneen zone yu yi nga xam ne du zone rouge ca nga dafa dugg ndax ndax euh, ginnaaw yow xamoo ci sa bopp ci dara ci wéradi gi ca it eh, fi nga jógee dafa am ca daanaka ki ko am sax da koy am ba noppi du ko mën a du ko xam. Mm-hmm. kon loolu it nu nit war nañu war nañu bañ di butu di génn di dem ci zone boo xam ne du zone rouge. Mm-hmm. bu dut lu lu mënta ñàkk. loolu loolu wa loolu nu nan nan nan bàyyi nañ koy bàyyi xel. beneen bi ci des itam euh, ci waxi sëñ Modou Diouf euh, ci mbokk moomu nga xam ne moo wàcc ab liggéey fële ñu di ko ñëwanti lool te di ko jaal mboolem mbokk yi ñaan suñ borom yërëm ko te xaare ko àjjana ca cam gëj cam di fi gëj ñuy wax ne autorité yi euh, damay faral di dégg lu bare bari ñu di leen daal ci seen kaw man nag duma politique seet duma politique xawma politique waaye léeg-léeg yenn saa itam yalla li war def duñ ko def moy eh, amna lu bari war nañ leen ko yegal ci duñ leen ko yegal mm-hmm. nit ki dem li nga xamne da ko dang ko ko wara yegal ci yegalo ko ko mm-hmm. bu ko neexé tam xam deug la eh, lolou dañ koy dañ koy faral di sétlu xamna tay émission bi daf ma raw nak xawma li ngeen doon waxtane dama ne won na dug rek feñal yene assalamu alaykum wa rahmatullah jere ngeen jere jëf jere seigne bass jere jëf xalaat bi rafet na ma Allah Euh, ni nga ko waxee noonu daanaka moom noonu laa ko doon xalaate sax bi muy wax ni damay génn euh, euh, ci zone rouge yi daanaka loolu laa ko bëggoon a laay biir rek ndax it xam naa ni sax xam na ko waaye léeg-léeg xam nga rek déggin moo dul yomb wax nit ni koy waxee ak déggin bi ni ko nit di déggee donc day jaadu léeg-léeg sax ñu ñu ñu leeral ko mbokk yi ah, daa mel ni amoon na ku nekk ci biir de salaamaaleykum ah, dafa mel ni génn na de. waaw dafa mel ni euh, dafa mel ni génn na kon génn na waaw mel na ni sëñ bi li ñu yoroon ci ci ci waxtu daanaka sori na lool sax. Euh, ndax mhm. xaabaabal nañu jamono yi moom waxtu yi euh, xëy na événement bi moo koy laaj. Mhm. waaye li mën a xam rek mooy da dimas ci waxtu wi ba ñuy wax daanaka ñu ngi woon ci deux cent cas yoo xam ni moom moo nekkoon yu officiel tey jii ñu ngi ci mille six cent quatre vingt seize quatre vingt quatorze cas yoo xam ni. moom la moom la euh, briefing bu mujj bi protection civile génne ci ci mille six cent yooyu def naa quatre vingt trois wér nañ ci euh, mhm. trente quatre victimes mooy ñu faatu waaye liñ ci mën a wax mooy ñi faatu ñëpp daanaka ñoom ñëpp ku ci ko ci gis romb na juróom ñaar fukki at te it euh, amoon nañu ay feebar yoo xam ni daanaka dañoo nekkoon ci ay moments yu critique donc ñu xam ni rek feebar bi donte tiitlu na waaye nag nekkul loo xam ni euh, faatam dafa gaaw euh, mënees na ko faj ndax am na ñu ci wér waaye e, e, e, li ñu wax mu di fagaru yi nañ leen ci bàyyi xel bu baax euh, képp ku ci war taxaw nga taxaw ci lan ci war a def nga dox ko na na na na na na jëwriñu association yi di def noonu la jëwriñu daayira yi war a def amul kenn ku ci ba ci jigéen ñi nekk ci kër yi Euh, bu bu xëy ñëwee ñu jox leen habitude boo xam ni bu ñu yegsee ci kër gi summi dàll yi ci buntu kër gi dàll yi ñu génnee ci biti ñu bañ koo dugal ci biir kër gi mu bañ a dugg euh, bu ñu yegsee balaa ñoo def dara balaa ñoo laal dara ci kër gi dem raxasu ji seen loxo ak saabu désinfecté seen loxo ba mu set war a mën a dugg nag nuyoo yooyu dafa nekk ay ay euh, maanaam maanaam ay ay ay ay notion yu yu yu yu terre yoo xam ni des koy xeeb waaye bokk na ci li nga xam ni mën naa aar doomu aadama loolu daal tey jii bokk na ci li nga xam ni moom lañ doon wax ci ci ci jàngoro ji eh, eh, waaye it eh, jàngoro ji lu mu metti metti ni ko sëñ Bas waxee rek saafara am nañ ko ndax ñun moom ay ay julit lañu te julit nag lu mu def rek maanaam am na. am na ay ñaan yoo xam ni euh, mi ngi fi sunu sunu wasila de Cheikhul Xadim euh, daanaka moom euh, waaj fàgguloon nañu lépp bind teg xëy na bu ñu teg jaaree ci yoon wi ñu war a jaar rek sëñ Ablaye am na semaine bee rek ñaan gu mu ñu laay biir maa ngi gis boroom xam-xam yu bari di génn di du di tey ji rek maa ngi fi woon sëñ Cheikh Ndindi Mbàkke bu Alaaji Baara mi ngi fi Euh, mu ñuy mu ñuy waxit ñaan gi nga xam ni sëñ maam Thierno fan yii yëpp moom lay moom la ñu dugal ci réseaux sociaux yi bokk na ci ay ay xeetu fàggandiku yoo xam ni defe naa ni euh, ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci ku ku ci ku ci tënku ak tegu ci yoon wi nga xam ni moom lañ ñu teg ndax ñun moom euh, li ñuy wax rek ay béy moom béy moom ci biiri béy rek la la la baaxoo yaakaar naa ni buñ ci tegoo jàmm mën naa. Euh, nekk ci suñu biir waaye bi ñaanal communauté bi di ko ñaanal fu nekk euh, di ko ñaanal suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu jëwriñ ji nga xam ni moo fi nekk di Cheikh Mountakha suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu di wér ndax ñëpp xam nañ ni alxamis bi ñu jëm moom la ñuy euh, màggal ki nga xam ni moo jëmm ji nga xam ni moo di jaari jaariyatullahi imaam Mariama Bousso di waajur ci eh, eh, eh, Cheikh Ahmadou Bamba nekk fële ca Poroxaan nekkit bés boo xam ni dafay dajale mbooloo kon mu ne suta ñàkkit bañ a bañ a bañ def ay ñaan mu joxewaat ndigal àllarba bi ñu jëm ci le kat di veyu màggalu Poroxaan joxe ndigal fépp fu jullit nekk ci àdduna beeg senegal ñu jàng alxuraan génne ay saka ay sarax jéggalu euh, tuubalante suñu biir euh, balaa ñuy tuubal suñu borom ndax it euh, nit ki moom loo tuubal suñu borom te diggante bi nga am sa digganteeg man sama digganteeg Pape Makhtar mënuma ko leeral suñu borom defe naa ni du du du du du leeral daal suñu biir kon loolu lu mat a bàyyi xel la defe naa ni bés yooyu xëy na donte niñ ko doon waxee sànq bari na ay barab yoo xam ni tey ji bu ñu siiw Euh, euh, bokk na ci li gën a dolli seen pas si li koy gën a dëgëral sëñ bi bu joxee ndigal mbokki taal bu yëpp toog gisante euh, bokk ñaan waaye nag jamono ji bu ko laajee dañ koy def ndax bu ñu fàttalikoo ñi fi nekkoon ci année quatre-vingt-dix tey jii boo leen doon na wax nu ñu daan def bay dajee nga xam ni dañ daan dëkk ci hôtel yi ñooñu tey jii boo leen waxee yi daayira xëy na période bii rek mooy dellusiwaat ci yéen ci ñoom kon tey jii amul lenn lu fi nekk lu dramatique lépp rek mën nañ ko dund dund ko ak euh, nangu dogalu suñu borom waaye it tënku ci la nga xam ni moom lañu ñu sëñ Tuubaa digal defe naa ni daal loolu buñ ci nekkee euh, mën nañu mucc ci lu bari kon sëñ Pape ma joxaat la kàddu gi rek nga def ñaan tàggoo taalibe yi ci dam incha allah incha allah xanaa euh, sant bu baax sëñ bi tey ci leeral yi nga xamante ni indi ko moom mi nga xamante ni dafa nekk euh, vraiment au cœur euh, de la zone rouge ndax jiixi euh, jaax bi ñu amoon ci autorité yi ndax jege si nañ leen wala jege si wuñu leen leeralal nañu que ni le consul woo na leen nemmeeku na leen xool na fi ñu nekk ak yan jafe-jafe la ñu am loolu ñu koy rafetlu loolu ndax dëgg-dëgg suñu kàddu rek la yore yoree euh, bu ñuy def jàngat dañuy def jàngat à trois cent soixante degré euh, duñu nekkuñu fi di faral ma sàmba wala ñu faral ma demba euh, dañuy wax li nga xamante ni mooy njëriñu askan wi am yaakaar ni li nuy wax waxuñu ko pour mu jëm ci kenn waaye dañuy wax rek loo xamante ni dafa mën a lu war a mën a yokk njaboot gi la ci njaboot googu it ñuy wax euh, mbokk talibé yi diko wax mbokk julit yépp euh, taxaw bi nga xamanteni ak euh, yeesal bi nga xam ni war nañ ko yeesalaat suñu digënté ak suñu njaboot ci taxawu leen ci xamal leen mesure précautionnelle yi nga ni teg nañ ko ci raxasu yi ak yeneen ak yeneen expliquer leen lan mooy coronavirus sans pour autant que nga def indi benn psychose ci seen bopp ci xale yi c'est important parce que euh, ay tëj nañ école yi waaye bu subaa dañuy ubbiwaat école yi te école yi ku ne xam na ni ay siburoog ay neen dañ koy wàllante ñoom ci seen biir foofu donc teel a euh, waajal suñu njaboot aussi ci yenn yi dafay am solo euh, panique bi nag ajuwu ko <coughs> yëkkati benn psychose ndax wax dëgg yàlla lu toll ci quatre vingt plus de quatre vingt personnes euh, ñoo xamante ni boletino bi wax na ni ñooñu tane nañu loolu macha allah semaine bi passé amuñu woon amuñu woon li bu teewlu kon kooku xel dana mën a dal ni ah ñaan nañu yàlla suñu borom mu mu teggi ko saafara ko lu mu gën a gaawee te bu ñu ñaanit dañuy ñun duñu ñaanal suñu bopp rek waaye nañu ñaanal réew mi nañu ñaanal tubaab yi am jàmm nañu ñaan lii mu génn fii Euh, bañ a dal ci ñun naam waaye teggeeku ci kaw tubaab yi nag ndax bu dalee tubaab yi ñun dañuy tënku ñu nit kon dañuy ñaanal euh, vraiment mu eggeeku ñëpp képp ku mu dal ngay tubaab ak ngay nit ku ñuul ak comme mu teggeeku la ci jàmm ak salaam xam naa suñ pap euh, dañuy gàttal foofu rek mm-hmm. incha allahu rabbi di rafetlu bu baax tes ki moo yi nga xamante ni dugg nañ fii Mm-hmm. ñoom sëñ Diouf sëñ Diop sëñ Bitey euh, Baylaat Gay ñëpp ñu leen di ziar di nuyu bu baax suñu mbokk auditeurs yi nga xamante ni ñu ngi ñuy aussi ci panel bi. Mm-hmm. Euh, di jéggalu bu baax sëñ Modou Mbaye Thiam suñu technicien ndax xam naa ni moom situation oblige parce que dañoo nekk ci moment bu crucial boo xam ni dafay laaj ñuy waxtaan waxtaan wu yaatu. Mm-hmm. Euh, ko ci jéggalu bu baax ci xaabal bi. ci baax ci kàddu yi bu dee dara am na lenn lu ci lu ci dëng wala lu ci diis rek ñu ngi koy jéggalu suñu ñàkk matadi da di leen jox daje beneen dimanche incha allah ci yeneen i thèmes. jërëjëf jërëjëf sëñ Pape Makhtar jërëjëf ni nga ko waxee rek ñu santaat bu baax suñu jëwriñ sëñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall waaye di ziar bu baax suñu xarit Alaaji Cheikh Mbacke Mboub moom jamono ji ma Sénégal waaye xam naa ne xel maa ngi fi eh, di ziar mbokki auditeurs yi nga xam ni daanaka ñun ak ñoom saa su ñu am ci émission bi bari na mbokk yoo xam ni ñu ngi euh, euh, di communiquer ñun via whatsapp ndeysaan via via facebook jóobee euh, ni tey nag dafa mel ni ñoom ñoom xaw a asali rek peut-être xëy na waxu pasta bi ma wax ci màggal yi moo leen xaw a tiital waaye nag waxuma ko ngir dara maanaam li ma ci jublu rek mooy <laughs> fexe ba nga xam ni dañuy dëppoog charte yi nga xam ni moom la sunu sunu sunu sunu sunu sunu dëkk bi euh, teg di ziar sunu sëñ euh, sëriñ aw koddu ñang sëñ benn aw koddu ñang moom it saa su ne daf ñuy bàyyi xel sëñ Ibrahima Ndiaye sëñ Mbasa Diop Ahmadou Silla euh, defe naa ne moom nekkul fii waaye mi ñuy bind ndeysaan ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñoo nekk Italie yëpp mbokk yi nekk fii moo xam sëriñ sëriñ Baro sëriñ Mor Ñang Cheikh Ahmadou Bamba Diop euh, sëriñ Faam Daam Lay Cerno euh, Jeng mbokk yi nga xam ni daal daanaka mën naa ni boo leen di lim tey jii doo fi jóge waaye saa su ne rek ñun ak ñoom ñooy ànd euh, bu ñu duggee ñu bu ñu émission bi tàmbalee rek ñu ànd ak ñun kon ñu ngi di sant bu baax di leen gërëm waaye nag di saku ñaan te it di ñaan saa su ne rek ni nga ko waxee Euh, ndax moom ab jullit moom euh, ay loxoom rek la am kàddoom ak pas-pasam fu dara xewee mu nangu dogal waaye yëkkatiwaat ay loxoom euh, sukk jublu ci ci suñu borom ngir ñaan ko lépp lu mu bëgg rek mu saafaraal ko ko noonu la ñaanee suñu borom saafaraal ñu jàngoro ji nga xam ni moo moo moo moo fi lëmbee jamono ci nekk daanaka dépassé na. maanaam virus euh, sanitaire waaye virus économique la mujjee nekk nga xam ni daanaka dem na ba nga xam ni sunu sunu situation yëpp la laal euh, euh, taxawal dëkk bi daanaka mettre ko en paralysie kon mënuñu def lu dul rek dellu si waat dellu si sunu borom waaye fas yéene koo ñaan na ko sëñ Muntaxa digle incha allah àllarba fépp fu daayira nekk ci ci Italie ci àdduna bi ñuy ñaan ñu wéye ndigal boobu ña nga xam ni mënee suta daje euh, na ko sëñ sëñ sëñ laat waxee rek mu ne nañoo dem ci ci ci ci ci ci moyen euh, technologique yi nga xam ni maye na ko ku ci nekk nekk sa kër euh, ñu jàng ay ay kaamil yu sel waaye yéene ci li nga xam ni mooy sunu pas-pas ngir ñaan nattu yi nga xam ni suñu borom teg nañu ko waaye ñu dellu si waat ci suñu borom bu nattu yi amee te xool lan la ñu lislaam wax ndax it am na jamono yoo xam ni buñ fa tolloo boroom xam-xam yaa ngi koy wax ni eh, xëy na bari na eh, xew-xew yi am eh, ñu ne suñu yoon nekku ci noppi ci ndax xëy na boo ci waxee ñu ne yaa ngi wax politique wala yaa ngi wax na nangam sangam sama yoon nekku ci sama yoon nekku ci boobu mooy dem ba daanaka lakk ba lakkaale loo xam ni Eh, eh, bokk ci woon kon nag nañuy xool dëkk bi nga xam ni àdduna bii nga xam ni dañ ci bokk ku ci nekk am ci sa wàll eh, bu ci dara xewee donte donte xëy na mënuñu koo faj ñu saafar ko sunu ñaxtu buñ ko ñu ñu xultu ko ba ñëpp xul yëg ni xultu bi am na ndax bu ñu xoolee ci àdduna bi de li fi xew yéeme na sunu mbokk yi nekk Inde ñu ngi leen di teg ay fitna yu metti suñu mbokk yi nekk Chine ak noonu ak ne ak yeneen i dëkk yoo xam ni daanaka Syrie ay jullite nga fa waaye tey jii boo xoolee Palestine daanaka mu mel ni suñu njiit yi wala boog doomu aadama yi bari na ñoo xam ni daanaka ku ci nekk yaa ngi toog ci sa ruq mu mel ni daanaka sa yoon nekkul ci yooyu ak it ay xew-xew yoo xam ni daanaka tey jii buñ doon xool ci waa waa axlul xitaab moo xam ñun la moo xam suñu mbokk jàngu bi moo xam yeneen tey jii euh, seen diine bañ na loolu nekk ci àdduna bi daanaka tey jii lëmbee yoon woowu euh, euh, ba sunu sunum réew me gis ngeen Sénégal tey ji fu nekk tey jii ñaari fan yu nekk nit génn fa ni ab yonent la wala nit génn ni moo moo jiite nangam wala moo yor xar baax nangam ku ci nekk toog ni patt ni man sama yoon nekku ci yu mel noonu nag day mel ni daanaka ñun dañuy nekk complice ci xew-xew yi nga xam ni moo xew ci àdduna bi loolu it bu xewee sunu borom am na xeetu natt yoo xam ne ko koy ñëpp la koy euh, kon nag day jaadu léegi xoolaat suñu bopp ñu war a wax jóg wax ñu war a ñax ñax buñ ko mënul it ñu toog méttit lu ko suñu xol euh, euh, ba nga xam ni ñun kat dana danañu wàccoog li nga xam ni mooy sunu war a gol kon mbokk yi tey loolu moo doon li nga xam ni moo di diaspora di leen sant leen gërëm di jéglu na ci lépp loo xam ni ay rëcc rëcc la di leen xamal ni euh, doomu aadama moom matul waaye lu fi baax rek ñu xam ni nim suñu borom la di suñu mbokk yi nga xam ni ñoo ci nord bi waa daayira Monsa ñoom suñu Ablaye Diop euh, sëriñ Ibrahima Cissé suñu mbokk yi féete foofu yëpp ñoom suñu Ahmed Ndiaye sëñ Ibrahima Ndiaye ak mbokk yi nga xam ne rek ku leen lim juum sama mbokk yi féete foofu waa kër sëñ Basiru yi sëñ Moustapha Lo sëñ Amsa Samb Eh, eh, sama mbokki naar yi ñëpp daal maa ngi leen di siyaar di leen xamal ni saa su ñu toogee ñu tudd foofu rek donte ñoo bokk dëkk bi suñu xel ni waa senegal di nekkee ci ci yéen noonu lay nekkee ci ñun kon na ngeen xam ni ñu ak yéen a bokk xew-xew bi kon eh, ñu ngi leen di sant di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci suñu borom ñun ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi jërë ngeen jëf ba dimanche ak jàmm incha allah حسبي الله